asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di sant yàlla di julli sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu mbokku téléspectateur u Thiénaba TV ah, jiital ci nuyoo bi la xalif général ah, Baye Sëriñ Abdou Rahim Seck xalif généralu ba ak lépp lu mu jaboote di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ci bark Seydina Muhammad sallallahu alayhi ah, nuyu Sëriñ Cheikh amadu Seck imam ratib bu ba Sëriñ Alsaan Ñaana sekk ñu ngi koy nuyu ak chef de quartier yi mu bokkal liggéey bi nuyu monsieur le sous-préfet bu Thiénaba monsieur Abdou Aziz Diagne monsieur le maire euh, Talla Diagne le premier magistrat de la commune de Thiénaba nuyu mbokk téléspectateur u Thiénaba TV euh, point com euh, delluwaat rek wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun delluwaat ñaanal suñu góor ga muy Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck xalif général bu Thiénaba tey ci 26 juillet 2020 ñu ngi taxaw fii ci Thiénaba Cooti tombeek moom bi mu faatoo ak léegi toll ci weer ndax le 26 juin 2020 ci la génnoon àdduna tey nag tombe ak dimanche 26 euh, juillet 2020 euh, euh, ñu taxaw fii ci Cooti ci woote boo xam ni la xalif général Baye Serigne Abdou Rahim nekk huitième xalif de am Ahmadou Ndak Seck moom moo woote fii ci Cooti comme ni ko mag ñi doon wootee démb ak barki démb Thiénaba TV nam ko daan defee rek ba mu juddoo ba léegi macha allah xalif général bu fi ñëw mu ànd ak yow ci liggéey bi gunge la macha allah waaye Baye Abdou Rahim yàlla na gunge bi yàgg Euh, yàlla na yéen bi oyof ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ñi mu bokkal liggéey bi yëpp macha ñu taxaw fi nag àndandoo ak ñi nga xamee ni euh, ñoom la ñu woo ñu ñëw di barkeelu ci euh, toolu cuut yi wax nañ leen léegi nii bi ñu duggee ci tool yi gis nañ ni macha mbooloo moom daje na fi ndax fu nekk nit jóge na fa ci ci ci Sénégal waaye fu nekk nit jóge na fa ci àllarsi fu nekk taalibe jóge na fi ñëw rek pour barkeelu ci li nga xamee ni mooy liggéeyu Seexu Canaba Euh, xam naa ni wax bi du gudd ñu ngi ànd ak suñu mbokk euh, suñu consultant Oustaz Mamour mbeng euh, fi lañ ko fekk moom tam mu ñëw comme dam daan ñëwee démb moom ñuy jege si rek bu ko defee ñu commentaire tuuti ubbi bi le côté historique ci liñ ci xam ci cooti bu ko defee rek daal di coupé nag dem ci waar wi ànd ko ak ñi ko doon àndal Oustaz Mamour Mbengue ñu ngi taxaw fii ci suuf soo xam ni xañ na buñ ko miinul lool ci at waaye deret ji miin na ko ndax mag ña miinoon nañ ko macha allah wax naa ni. Euh, ba ma dalee ñëw ci wooteef Cheikh Thiénaba yàlla dimbali na ma depuis euh, ci sëriñ Ibrahima Seck la euh, boobu nag ay tout tànk la ñu woon xam nga bépp taalibe Thiénaba booy dégg mu ne la dem naa fulum euh, moom jàppal ni kon yàgg naa dem ci wooteef Cheikh Thiénaba te yàlla wërsëgale ni ñun dem nañ fulum kon loolu tam ñu koy sant yàlla baax di di taxaw rek fa mag ñi taxawoon démb euh, xalaat bi boo nuyoo waaw euh, jërëjëf mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di jaajëfal sunu nijaay di El Hadj Moussa Ndiame xam naa jaajëfal gu yaatu sax ndax Thiénaba TV wax dëgg yàlla ni mu ko téye ginnaaw bi ko DG jël jébbal ko lépp ndax xam ne compétence am la engagement am la bëgg-bëggam ci Thiénaba la waaye loolu nag du bett kenn parce que moom tey fii bu taxee wax euh, mag ñi nga xam ne xam nañ démb buñ ko xoolee buñ leen bu leen neexee dañ koy jéggi euh, ci El Hadj Baye Talla la seen xel di di waajuram mais buñ xoolee El Hadj Baye dañ koy jéggi mais ci Mame Mor Gueye jëm te ku ne xamoon na ni Mame Mor Gueye ak Mame Momar Talla Seck mi nga xamante ne bi tey mooy waajuru xalifa bi ñoom ñaar duñu woon euh, ñaari jëmm mais jenn jëmm lañu woon ndax boo duggee ci néeg jël fa di xalif général di kilifa ñëpp topp sa ginnaaw nga jël koo xam yaa ko dénk wàllu jàngal jàngale muy ko naw lool ni ko pour nga xam ne def naa la comme sama bopp fa ma jëlee fa ngay jëlee ci it dinaa la téye ci sama yaakaar naa tey ab sëtam bu taxawee fii dañuy xam ne kon démb moom moo ñëwaat mais bu ñu neexoon sax jàllat ca euh, waajuru Mame Mor Gueye muy Mame Moussa Gueye ca sàmba Sadio ja xam ne foofu aussi lu bari dafay daje euh, euh, sëñ Moussa Ndiame dama naan mag ñi nga xam ni Euh, seen maam demoon na Samba Sadio euh, ci euh, dëgg la seen taxawaay Thiénaba yàgg na rafet mais jamono ji ñu ni Baye Abdourahim dafa boole nekkandoo setu maam Cheikhou Amadou nekkandoo setu maam Ahmadou Ndak kon dañuy gis ni maam Moussa Gueye kat dafa jëflante ak ñaari maamu maam kii sëñ sëñ bi xalifa général de Baye Abdourahim Seck mais aussi man aussi tey noonu la ñuy waxee maam Majib ak maam Gora jëflante ak ñooñu boo ko doon topp tey noonu ngay demee mu mu nekk lu yéeme ci ubbi sama nijaay bala ma fàtte dama naan gàcce gàllaama Thiénaba TV ndax dina def lu yéeme euh, euh, ci biir koor gi ba bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane Seck mooy xalifa général boobu situation bi kenn ñi ma wu ko imaginer ngeen def lu rafet ngeen gis ni ah Baye Cheikh de mooy xalifa bi waaye Baye Abdourahim aussi am na lu am solo lu mu ko téyal ndax fële ci cosaan ca cooti xam ni maam Talla sekk moo yoroon tool yi mu dem toog fa ak njaboot gi ubbi fa daara kon nañu fa dem d'abord ziare ko mais Thiénaba TV aussi ci émission daara yi nañu fa dem ñu daal di koy euh, jëflante ak moom keroog bi may ñëw fi di ànd ak sëñ Talla Sarr di jël élément bi sëñ Mamadou dani ma sa gars yi de ñëw nañ fi keroog muy Serigne Moussa Ndiamé Guèye ak sëñ Alpha Sarr ñëw fii dox tànk kóllëre ba pare jox ma addiya kon yaakaar naa tey booy euh, reporté dañuy gis ni démb moom moo euh, ñëwaat yàlla na yàlla fayal ñu mag ñi euh, kon daal foofu la ñuy yem allah sama nijaay ba ci kanam. mu nekk lu am solo xam naa li ma ciy dolli rek taala bu ñu ko mënee won gis nañ sareet yi commencé takk fële Euh, ñu ngi takk ndax euh, instant bi ñuy waxee oustaz Mamor euh, toolu cooti bi moom bay nañ ko ba mu ba mu jeex léegi nag ndigal li nga xamee ni moo joge ci kilifa yi mooy nañu takk saret yi ak fas yi dem mbadet bu ñu demee mbadet Euh, bay baxaw ba fa nekk. Uh-huh. Euh, kon loolu moom mooy ordre bi kon xam naa ni tey euh, ci suñu reportage dinañ gis ñu mel ni lu koy xaw a làmbeer ndax bu ñu jógee fii comme jigéen ñi moom du ñu yenu seen i cin di dem ñun dañ leen di fekk fañ nekk def reportage ak ñoom ca waañ wa bu ñu jógee ci waañ wi nag. doog a dem Mbadet fekk leen fa def reportage bi nga xamee ni macha allah moom mooy reportage yu tool yi kon noonu lañ ko bëgg programme rek di ci ànd ak suñu mbokk nag ak suñu jarbaat muy oustaz Mamoun Mbeng Talla ci caméra bi ak bébé Baye Euh, Sarr euh, ci euh, ndimbal li moom tamit ak Talla Niass Diop macha allah équipe bu Thiénaba TV daal nam daan doxee ca toolu Cheikhou Thiénaba noonu la continuer di dox ci toolu Cheikhou Thiénaba ñuy sàkku ñaan yal yàlla defal jàmm defal ñu xéewal defal ñu sutura ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. macha allah moom tamit ràññee nañ ko ci Thiénaba waaye ràññee ko ci wetu mag ñi wetu Baye Serigne Abdou Rahim waaye nit ñi tamit ràññee nañ ko ca euh, ca mbuur ndax mbuur ak canaba benn la euh, ci liggéey bu am solo bi loolu nag moom bu àddoo euh, dinañ xam lan moo ko waral lan mooy cosaan li ak lan moo waral taxawaay fii ci tool bi sëñ Mori ñu ngi lay ziar. waaw sëriñ Jàmme ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi di xam ne di la xamal ne laaj bi nga laaj moom li ñuy doon doon ndaw am nañ ci tontu daal ndax fii di cooti moom Eh, li sëñ Mouhamed wax léegi rek nee na fii ñi fi ñëw duñu fi gan waaye béréb su fekkee ne si say maam foofu lañ ñëwoon daan fi fekk sëñ Thiénaba maam Momar Talla sekk maanaam muy seen kilifa mat leen kilifa sëkk eh, fa tabaarakallaahu mu wut àll bu toll nii di cooti eh, ñu di fi tuur seen ñaq di fi wut lu lew lu ñu dundee suñuy maam dund ci loolu ba génn àdduna suñuy waajur ñëw bokk na ci histoire sax li ñu nettali nee na bi maam sëñ Thiénaba génnee àdduna 1946 1947 sëñ Ibrahima Seck ndax dafa bokkoon ci histoire gàdd gi ma dëkk ak Thiénaba képp ku nekk sëñ Thiénaba bala ngaa génne waa def ay tournée da ngay ñëw gàdd fanaan fa. bi maam Momar a nelawee nag sëñ Ibrahima génn gi mu a génn ñëw gàdd euh, mille neuf cent quarante-sept sama kër maam Amadou Safé Diouf la ñëwoon sama maam keroog mag ñi nee nañ man yëkk wu xong la reyal sëñ Ibrahima moo njëkk a reyal sëñ Ibrahima Seck aw nag 1947 Euh, sama maam dund ci loolu ba génn àdduna sama wayjur ñëw di Serigne Mambay Diouf di góor goo xam ne tund wam dëkk di tund gàdd ak réew mi yëpp ñaari dàkkental la amoon ak a baax ak a maandu waaye ak a gëm sëñ Thiénaba loolu rek moo doon dàkkentalam ñun ñoo ñu judd ci loolu yaru ci loolu ñun fii di euh, cooti ak mbadet bi ñu amee fukki at lañ ñuy leewu di ñu fi indi ñuy ñëw tool ba di fi ñëw di siyaare si nga xam ne si ne sama baay bokkoon na ci ñun ay ndaw lañ ñoo xam ne bu sëñ Thiénaba masaa yi yebal oto ñu war a jëm fulum dañu naa xale yi duñu dem ndax dañoo niiw doole mënuñoo bay waaye sama baay da daan wax ne man de ñii laa am te dañuy dem buñu demee bu dee mayee ndox sax mayee ndox kon ñun fii mën nañoo wax ne maanaam cosaan lañu fi ndax fi la woon suñuy maam fi la woon suñuy baay. bi euh, cosaan nañ fi ma dagg la tuuti euh, fi la woon suñuy euh, baay fi la woon suñuy maam tey yàlla def ngir ñëw pour seetli loolu tey boo ñëwee ci tool bi gis ni heure bi jot. moom cooti moom bay nañ ko ba mu jeex ñu war a dem war a dem mbadet tey yow en tant que nit ku donn loolu mu nekk ci sa deret ban sentiment ngay am. waaw sentiment bi ma am mooy sant yàlla bu baax te xam ne Euh, maanaam li alquran di wax rek naan boo da aus billahi min suma awrastal kitaaba lasina astafayna min ibadina maanaam ñi donn loolu ba tey ñu def njàmbaar gi maanaam dañuy ñoo xëye ay tànneef lañu ci maanaam ci kër gi maanaam dafa am loo xëye boo ko donnee te yàlla dogal nga xam li nga donn lu mu doon te xam ne ci teguwaay la tegu euh, maanaam sare sunna nangu ko sare a nangu ko loolu boo ci ñëwee njàmbaar goo ci def da nga koy xeeb loolu moo tax tey mbooloo mi bi nu ñëwee dañ doon jëkkante tool bi kenn ku ci nekk naan maanaam maa war a ëpp sama morom lu mu ndax ma ëpp ko tuyaaba loolu moo tax bi nu ñëwee tool bi daanaka xawlee la doy ba tax na daanaka heure bii maanaam nga xam ne si ne kenn waxagul waxi wàcc ña nga buuñ ñun ñëpp ñu wuti mbadat te fa tabaarakalaa bu ñu àggee incha allah ba lañ koo won ginnaaw nu ñu def tuuti rek dinañ ko def mbadet fa tabaarakallaa macha allah tey message bi euh, lan lay nekk ci yow mi nga xam ni yàlla dimbali na la nga ràññee mm. bu ñu nee ñëw leen da ñëw mm. ki nga xam ne mu ngi toog di la seetaan mm. euh, te euh, ndonoom la xañ na tëbul tëbinu baayam wala tëbul tëbiinu maamam tey loo koy wax waaw loolu moom li ma fiy wax mooy lu ma laaj bi nga ma laaj sëñ jàmme lu ma sawar la ndax li tax mooy dañuy wax ne maanaam maanaam tëb sa tëbiinu wéyjur mooy rëq sa ndigg te itam maanaam fa bokk boo fa dut wuy ji da ngay wuy ji feneen te it nit fa mu bokk da koo war a xam ràññee ko rawatina muy fu mu bokk foo xam ne si ne ñi fi bokk sant nañ yàlla ñi fi bokkul sax noonu lañ seew bokk fi kon nag message bi may laase mooy fépp fu taalibe nekk maanaam aju ci kër si naa Limaal Mahdiyu aju ci kër maam Ahmadou Ndaak Seck saa boo déggee woote sëñ Thiénaba loo jàppal war nga koo bàyyi te dem wuy ji sëñ Thiénaba te it am na secret bu ci am gis nga béyal sëñ bi toolam dina tax sa tool du booy loolu message la boo xam ne maa ngi ciy soññ sama bopp di ci soññ ñëpp lim message bi may ciy lancé laa sëñ jàmme mooy fépp fu waay nekk moo xam Thiénaba la ak li ko wër ak réew mi sax foo mën a nekk dégg woote sëñ Thiénaba maanaam na nga ñëw wuy si wuy si ci jëmm am na mais wuy si sax ci sa alal am na ndax boo defee participation ci tool bi ñi fi nekk dinañ ko gis sëriñ bi dina ko gis te loolu waar la tabaarakallaahu liñ ciy dolliwaat tuuti rek mhm. mooy dañoo nekk fii ci buntu jàkka ji euh, tabaarakallaahu cooti di dëkk diine boo xam ne si sëriñ ma Seck radiyallahu taala dafa daan wax ni penc mu amul jàkka moo bakkan moo kanam gu amul bakkan ñooyam moo tax jàkka ji tabaarakalaaw dafa taaral dëkk bi taaral dëkk bi lool kontaante gi la ci am nag mooy Baye Abdou da dafa ñëw xam ne dëkk bi lu foo lu war a am jàkka la mu waxtaan ceeg man diis ma ko fa tabaarakalaahu ah, mu jox ma ci ndigal ma am tànk yu ma ci dox ba am ñoo xam ne si na nangul nañ ma ko ma indi leel ba fii tabaarakallaahu ñu def fi jàkka ji ci digalu Baay Abdourahim kon loolu it tabaarakallaahu ñoo ngi leen koy xamal xamal ne jàkka ji tamit macha allah ku fi ñëw da kontaan ndax xam ne taar la ci dëkk bi. lu am solo taar la ci dëkk bi euh, Oustaz Mamoune Mbengue mu ngi ree mm. euh, ci bi nga nee euh, jàkk dëkk bu amul jàkka mm. day mel ni kanam gu amul bakken mm. xam nga loolu day ñaaw. voilà mais message bi dégg nañ ko macha allah mu nekk message bu am solo boo xam ni ñii seetaan dinañ ko jariñoo mag ñi dañ doon wax naan ñett yi ab taalibe da koo war a man bu mënul boole ñett yëpp tamit na ci am ñaar wala mu am ci sax benn muy lan bu ñàkk jotee na ñëw ñàqal sëriñam wala mu ñukki wala mu ñukki ñukki kon ñàq wala nga ñukki wala nga ñukki ñukki loo ci def rek baax na ñu ngi fi ci cooti incha allah ci kanam tuuti. daal di jërëjëf kon Serigne Mori euh, ñu ngi taxawaat ak keneen wax nañ leen ko léegi ni euh, bay nañ cuuti ba mu ba mu jeex ñu war a takk saret yi nag jëm mbadet euh, Serigne bi yow la ñu fekk nga takk sa saret jël sa machine teg ci ànd ak sa waa kër macha allah tur bi ak fan nga jógee. Seyni Jom Caakri. kañ nga ñëw ci tool yi. ci suba. waaw di ci am mbégte bu baax sant sunu borom biñ ñu yàlla boole ak sëriñ bi ba ñu am sañ-sañ ak bëgg-bëgg bu nuy liggéeyloo xéewal gu mag lañ ko def di ñaan suñu borom barkeelal lépp te ñu fekke ko te lépp suñu borom def li gërëm ndax lii rek lañu doon ñaan xëy di xëy ci yoonu sëriñ bi lu nu ñor la la kay nañ ah di ñaan sama borom faj ci aajo yëpp jéggal jégal ñu sunu bakar defar saayir ak baatin lii rek wasalaam. Ah, fan nga jëm ni fi laa bëgg a eh, jëm. fii jeex na Mbadet ngeen di def. incha allahu taala Mbadet da ko bëgg a def comme ni ngeen def ci. jeex rek bu soobee suñu borom. waaw kon mbokk yi ko loolu lañ leen waxoon euh, dañuy wax ni tungu ni di teew nag euh, ñuy nataal. Euh, macha allah moom nee na ni ñu def cooti noonu lañu bëgg a def mbadet kon ñu ngi takk seen i fas ilaa mbadet macha allah Thiénaba TV tamit dina takk ay caméraam dem fekk leen mbadet lépp rek sotti ci ak def ci la. jërëjëf Talla Sarr ci caméra bi kon ñu ngi toog ak suñu kilifa suñu mag Baye Serigne Khalifa Seck. di imam euh, ci grande mosquée bu Thiénaba waaye di kilifa ci biir euh, dëkk bi euh, di kilifa tamit fii ñu ko fekk mu toog muy cooti Baye Khalifa ñu ngi lay jox kàddu nga nuyoo bu ko defee rek nga baaxee ñu leen loo xam ne ab bind lay nekk boo xam ne ndaw yi seetaan dinañ ko mën a yóbbaale. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Serigne Ndiame ñu ngi leen di delloo nuyoo di leen gërëm te leen sant ci taxawaay yu rafet yi. ndax lii ngeen def te mooy fekk kilifa diini boo xam ne bi bu ñu xamoon la démb ak barki démb ci nungoo liggéey ak nungoo jaamu yàlla muy sunu waajur sëñ Abdourahim Seck yàlla dogal mu toog ci xilaafa gi boobaag tey di ay fan rek la e nawet bi daal di toll fii mu toll mu delluwaat ca tool yi démb ya nga xam ne mag ñi dañ ko yoroon démba ak démb e mag ñi daan ko bay di ko ku jàll sa morom jël ko ba yëf yi ci moom Eh, bii fi egg ci moom nag mu taxawaat beneen taxawaay boo xam ne bii eh, lu lu yëf yi masoon a ràññeeku gën naa ràññeeku ndax nii nga xam ne ni la wootee ni la wootee dëkk yi nga xam ne ñoo wër canaba ak àll yi gën a sori ak niñ ko wuysee ku gis loolu rek da xam ne nit ñi am nañ ci moom yéene am nañ ci ñoom moom taxawaay bu rafet naka jekk nii lañ mës a mel waaye nag lii moom saahiri na saahiri goo xam ne gii ku ko gis da xam ne nit ñi am nañu yéene ci déglu ko ci liggéey ak ndigal yi xam ne da koy joxe te lépp tege ci loo xam ne lii ngërëmal yàlla rek la ñuy jox kon noo ngi koy ñaanal yàlla yàggal eh, xilaafa gi te barkeel ko te lu mu ci weesu rek loola juróonu ngërëmal yàlla ndax loolu la mag ñi mas di dox loolu la mag ñi mas di sonn nit nag bu toogee jot sees boo xam ne bii dañoo wax ni koy fii yonent bi nga fi donn ndax kilifa ak diina gu mu doon rek na mu toogee yonent bi la donn ah, bu nee bëreet ñu gis mu dox doxeen ba nga xam ni moom la yonent bi daan doxee day dal xel li mu soxla rek mooy ku am ngor am diine am jàmm nu liggéey nu ànd e, jàppante ci anam goo xam ne gi gu rafet lay doon e, loolu nag e, julit boo ci woo wax dëgg yàlla dafay daal di gën a sawar ni ngeen ñëwee nag pour feeñal mbir mi noo ngi leen ciy sant ndax jamono yàgg ay liggéey yàgg na am ay taxawaay yàgg na am waaye nag moyens yi nga xam ne moom ngeen yor di feeñal mbir yi lii amul bu njëkk kon bi ko yàlla indee ci seen loxo ngir am sawarte ak taxawaay bu mat sëkk ba xew-xew yi amee ba tey lépp lu mu doon ku teew gis na ni ngeen taxawee ku teewut it fu mu mën a nekk image yi yëpp ngeen ko ba dara ump ko ci liggéey bi diine bi loolu ñu ngi leen ci sant te di leen gërëm yal na jàppale ba mbir mi dem ba nekk télévision ak rajo yaatu ba jot ci àdduna si yëpp jërë ngeen jëf yal na leen yàlla fayal. amiin amiin uh, amiin yaa rabbal aalamiin ci ñaan yi Baye xalifa yoo tam ñu ngi lay delloo ñaan uh, di la ñaanal nga yàgg fi te wér. Euh, yàgg ci kanamu njaboot gi ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk téléspectateurs yi noonu rek la ñuy demee euh, dugg ci waar wi ñun tamit à notre manière euh, xam naa ni ki seetaan mu ngi naan ñoom yoru yoruñuy ëllëer waaye nag ñun lii mooy suñuy ëllëer ndax ndigal lañ ci am macha allah kon ñu ñaan rek xam naa fi ak at yee ca kanam kanam bu ñu ko bëggee fàttali ko rek daal leen koy wanaat bu boobaa ngeen xam ni lu am njariñ la ko loolu la bàyyi xalifa di di di di feeñal kon ñu yëkkatiwaat suñuy caméra rek dugg ci biir kër gi dem ci kilifa yi wala sax ñu dem ci waañ wi xool yëfi njaween yi fan la toll Euh, mbokk yi delluwaat jaajëfal leen yéen ñi ànd ak waa Thiénaba TV euh, macha allah di wax rek euh, amin yaa rabal alamin ci ñaan yi nga xamee ni sëriñ xalifa bu bàyyi Alfa Mamadou sekk ñaan na ko di xalifaam fii ci suufu cooti waaye waxoon naa leen ko léegi ni leen cooti moom ku fi ñëw jëriñ ji mu ngi fi muy kan muy sëriñ Mouhamed Seck cooti moom lañ ñu joxoñ mu bàyyi sëriñ Abdourahim sekk moo nekk fii yore daara ji macha allah toogal fi mag ñi. Euh, moom la ñu toogal euh, bu ko defee rek moom la ñuy dékk micro euh, mu daal di nuyoo bu nuyoo ba pare rek bu ñu amee laaj laaj mu tontu wala bu amee lenn ñu baaxee tam loo xam ne laaj ñu ko bu ko defee mu baaxee ñu ko mu nekk loo xam ne am bind la Serigne Mohamed ñu ngi lay ziar bu baax ba baax. Serigne Diame ñu ngi lay nuyu bu baax di la delloo ziar di leen ndokkeel di leen wax ni leen ahlan wa sahlan wa bikum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ni dal leen. ak jàmm ci barab bu tedd bi di barabu leer di barabu alxuraan di barabu salaatul fatihi di barab boo xamante ni macha allah léppam yiw la léppam tedd nga la ñu ngi leen ciy dalal bu baax a baax a baax jërëjëf. sëriñ euh, euh, Mouhamed euh, cooti lañ nekk est-ce que mën nga ñoo fàttali tuuti rek ci cosaanu cooti muy mbindum histoire mu ñuy fàttaliku. waaw cooti day sëñ Jàmme jërëjëf barab la boo xam ni. bu historique la ci cana ba ndax kenn mënul wax cana Thiénaba te doo wax cooti la ko waral nag mooy barabu yarukaay la woon boo xam ni eh, képp kuñ mus a defar rekk ci tariixa bi ba yaakaar ni war nañ laa mën a yeewi daanañ la indi ci barab bii nga am fi ab diir benn nga am fi benn at wala nga am fi juróom-benni weer wala nga am fi ñaari at wala nga am fi juróomi at wala lu ko ëpp kenn ku ci nekk sëñ Thiénaba Mor Talla Seck moo daan xool rek la méngoog sa xaal mu saxloo la ko ci cooti ngir nga barkeerloo ko waaye gis nañu itam amul kenn ku fi mës a rek dem ci barab lu may ni yaa nekk kilifa ñooñ a nga fekki <clears throat> te loolu nag barke la boo xamante ni fii lañ ko daan fàggoo ci barab bii di cooti barab la boo xamante ni daf daan wax ni mooy sama baytul xalwa fi la daan wéete ak boroomam fi la daan tuure aw ñaqam itam di ko delloo ci diine ji ba lu bari loo xamante ni liggéeyal na ko sëriñ Canaba Maam Amari Ndaak Seck la ci ëpp rek ci barab bi la ko daan fàggoo mu di cooti junj naa ko léegi ci bi nga xamante ni mi ngi waaj pour génn àddina gerte ga nga xamante ni waxoon na nañ ko ko nañ ko ko faraasul te faraasu gerte nekkul luñ miin loola la muy firndeel rek mooy nit la koo xamante ni ginnaaw àll ba àlli wa allahu akbar yëpp da ko symbolisé woon fii ci cooti ndax bi mu ñëwee cooti lim njëkk a def ginnaaw ba mu fi nekkee ak njabootam dafay def daara alquranul karim Baye Babacar Sarr ci ñi njëkk a yor daara ji ci lañ bokk garab niim gëla ngay séen foofe moo woon këram suñu way juroo Baye Talla Sarr fii la juddoo suñu woy jur eh, bàjjan abu Sarr fii la juddoo mu nekk fi ak Baye Serigne Sarr yor daara ji mën naa lim yu bëree bëri ñoo xamante ni daara ji jaar nañ ci seen loxo ku mel ni góor gi Ibra Seck Rabbu bokk na ci ñi jàngal Baye Cheikh Ahmed Tidiane mosoon na yor daara ji sama maam ji ñuy wax Ibrahima Xulle bokkoon na ci ñi yor daara ji Euh, góor gu baax ñu di ko wax Seexu Njaay Faatu Booy mooy bàyyi sëñ Njoogu Njaay nga dëkkoon ca niim yële moom moo yoroon daara ju mag ji daara ju ndaw ji nag ñu joxoon ko suñu bàyyi bàyyi sëriñ Mor Ñaŋ imaamu ratib mu nekkoon fii kon barab la boo xamante ni barabu alxuraan la barab la boo xamante ni barabu tërbiye la ndax góor gi daana indi ay nit ñu nekk mu di leen tërbiyeloo am na génn góor goo xamante ni dafa góor gu mag dafa mus a génn fekk ko muy nekk ci benn dëkk ci taatu yoon di am di root am ndaa loo xamante ni daal fu mu nekk rek da koy root ngir jaami yàlla yi fay jaar man di ca naan buñ soxlaa wala ñu di ca jàpp teg fa ay satala di ko yeesal gër gu mag daal di laaj waaw kii lan mooy mbiram ñun ko ah, kii day dafa biijoo ak kenn ci ñaari way yàlla dogal bakkan way des ci loxol waa jooja gër gu di ko xool ba yàgg mu ne laay kii day kii day sa law daf ma xamut kii day su ma xëyaloon menn xëy rek yàlla baal ko lim def lépp ñu daal ko koy wax kooku ñëw fekk si ko ba mu koy indi fii la ko indi ci cooti keroog ba mu ko fi liggéeyloo boobu da ko doon da doon gorloo ay ay ay ay ay xeer fi dem gosaas muy gor di bi googu mag ñëwee lobb la bu mag ca kaw gor gu mag daal di koy woo mu ñëw mun ko demal sangu mu sangu ba set mu génn ay yére jox ko mu sol mun ko sa laaw day bis ni tey mel nga ni ba nga juddoo ci sa ñaari wayju na nga sete woon ci bàkkaar sa laaw yàlla toppatu la dara kon barab la boo xamante ni su Baye Abdourahim Seck ñëwee macha allah waññi ko di dundal loola ah, di ko jéem a niral ñëpp di ko fi fekk macha allah loola di dund kon dañuy xam ni rek macha allah barab la boo xamante ni bu taqoo ak barkeem la kon tey jii su ngeen ñëwee tey fekk fi mbooloo mii ñu ñëw wuy ko yàlla dogal tey jii mooy Cheikhou Thiénaba macha allah mbooloo mi yëpp ñëw ànd ak pas-pas ndax lii moom lu gëj a am la cooti gu ñu bay xëy te dara sikku ci ñu bay ko balaa 11h mu pare loolu moom gëm naa ni su mësee amit xam naa yàgg na waaye ñi ko doon def ay boroomi pas-pas lañu ba gis nga cooti pare na ñu nga daw jëm mbadet te xam naa ni bu soobee suñu borom boo xefee bala ñoo tàggoog mbadet daañu ko def niñ def cooti kon taalibe yi ñu am pas-pas lañu taalibe yi ñu bëgg seexu canaba lañu taalibe yi ñu gëm seexu canaba lañu kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye nag di leen wax ni li ñu def wàccuñ ko ndax maam Amari Ndaak Seck dana wax ne sunu borom moom ñimewul bor waaye daa am pay waaye maam Amari Ndaak Seck lépp lu waaye teg ci loxoom ne la wóor ne loola sànkuwut te ci loxoom lañ ko teg ndax Baye Abdourahim moo ko fi toogal tey jii te lépp lu ko waaye defal du Baye Abdourahim nga ko defal waaye maam Amary Ndack sekk nga ko defal te maam Amary Ndack Seck nag moom lépp lu ko waay defal bu dee benn la bu soobee yàlla da nga ci ba sedd say doom sédd say xarit sédd sax say dëkkandoo ndax taraangam daa mat sëkk kon seen jàmme daal loolu ci histoire cooti ah, yàlla dogal na mm, luñ ci mën a tënk la ah ñu nit nag yàlla indi ñu fi ginnaaw bi ko Baye Abdourahim sekk ñëwee dekkalaat ormay mag ñi macha allah taxawalaat ko defaat fii nga xamante ni loolu moo nekkoon cosaan cooti te mooy dundalaat tool yi daa ko woote samp daara ji yëkkati ko teg ko ci sama loxo ma di ko saytu mu tabax jàkk ji ñuy julli di wasifa di dundal la mag ña daan dund kon cooti bu fekkente ni lu tuuti la ci jëmm itam jàpp nañ ni baatin bi yaatu na lool ndax saa boo génnee da ngay dégg ku ni la man day cooti laa nekkoon dama day damay faral di wax ne man cooti day ni ni tur wi toll jëmm ji sax tollut noonu waaye yàlla mooy dence noonu ndax barab la boo xamante ni ñi fi jaar ñépp yàlla am na lu mu leen may yàlla am na lu mu leen fàggul jërëjëf sëñ Jàmme Euh, macha allah euh, cooti euh, barab la boo xam ne ñu fi jaar ñëpp yàlla am na lu mu leen may waaye am na lu mu leen fàggul loolu mooy kàddu yi nga xamee ni moom la sëriñ Mouhamed Seck tëje ay waxam ginnaaw bi ñu ko laajee rek mu jàngatal ñu tuuti ci histoire cooti macha allah waaye wax naa leen ko léegi sëriñ Mouhamed faaw rek mu andiwaat beneen laaj. waaw jërëjëf sëriñ mohamed Seck macha ci leeral bu am solo boobu nga xam ne rek indi na ko fàttali ñu cosaanu cooti. Euh, damay wax sax lenn ci cosaanu cooti ndax cooti moom mën nañ cee xëy suba ba ngoon euh, di ci waxtaan euh, muy woote bu njëkk boo xam ni Baye Serigne Abdou Rahim woote na ko fii ci toolu Cheikhu Canaba ci bi mu déggee turu xalif généralu Canaba dégg na nga sëriñ Mohamed wax na ko mbooloo mi ni ñu wuysee sax ëpp na njort li ñu amoon di leen ñaanal ñoom ñu wuy si ñëpp yàlla na yàlla fay leen ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam mais beneen laaj bi may laaj mooy xaj na ñàkkul ni nit a ngi jàkkaarloo yow te ñëwuloon wuy si Euh, loo koy fàttali ci euh, woote yu nekk ci suñu kanam parce que am na yeneen woote yu nekk ci kanam nag euh, ginnaaw mbay mi ba keroog ñuy àgg ci naaf ak jëri yàlla nañ ci yàlla yóbbook jàmm ñu fekkee macha allah ban woote ngay woote rek fàttali jëmale ci ñooñu nga xam ni xañ na jotuñu woon a dégg woote xam na fàttali gi day mooy fàttali suñu bopp rek ndax suñu borom daf ni man amila saalihan fa li nafsihi daf ni lu baax moom képp ku ko def rek yaa ko moom. te nii ñu ñëwee tey jii maanaam ñëw pas-pas la tam mbooloo ñoo fi teew yaakaar nañ itam yeneen yi ñëw ci suñu kanam noonu rek lay it ndax xam naa ne ñii ñëw tey jii suñu delloo wax li fi xew képp koo xamante ni ñëwoo woon te fekk ngant moo taxoon ñëwul incha allah ñu ngi yaakaar ni bu ngant loola jeexee di nga daal di ñëw njaboot gi yëpp ñëw nañu tey jii wuy si ko waaye nag jiital ci njabootu maam Amary Ndack kenn ku ci ne taal nga sa oto tey ñëw. waaye bi ngay ñëw sa oto da nga def teraanga joo xamante mën na sëkk teraanga waaw ñëw au lieu nga toog ci kër yi waaye da daal di dugg ci biir tool yi sëñ Ibrahima noonu di dem di di di soog a dem léegi tool yi da koo wër ba mu jeex takk sëñ Abdourahim Mbaye Mori ñoom ñëpp sëriñ Xalifaa ngi nii ak ñeneen sëriñ Pape Seck Mourtada mënuma leen a lim ñoom ñëpp waaye dem ñooñu rek laa ciy tudd waaye ñeneen ñi ci des ñoom ñëpp rek ñu ngi ci yoon wi di ñëw xam naa incha allahu rabbi yeneen yi ci kanam bu soobee yàlla loolu moom buñ ci yàlla yóbbu ak jàmm mën naa gën a yaatu ndax euh, mën nañ ñi woote bii dafa xaw a bette waaw mën nañ ñi ñu bari sax ñi ngi téléphoné ni ñoom yëguñ ko waaye nag loolu moom ak ndoorte rek la incha allahu rabbi buñ ci yàlla yóbboo dana gën a yaatu dana gën a matal te it loolu moom dañ ci sukkandiku yéen ñi nga xamante ni yéen a mën a tas euh, information ba mu yaatu lool ba ñëpp mën cee jot am naa buñ ci yeggatee rek dana gën a yaatu incha allahu rabbi Ah, jërëjëf Serigne Mohamed ah, wax naa leen ñu ngi toog ak suñu suñu rakk ah, waaye koo xam ni tamit yàgg nañ ko joxandoo ci Thiénaba TV muy Alioune Ndoye macha allah Alioune yow lañ dañ lay jox nga tënkal ñu rek tënkal ñu brièvement waaw fekkee nga te macha mën nga ñoo fàttali loo xam ni mën nañ xale yi mën nañ koo jariñoo mag ñi sax mën nañ ciy jëlee lu bari loo xam ni dañ koy jariñoo ñu ngi fii ci Cooti mu nekk suuf soo xam ni damay wax ni Euh, même xale bu ndaw mi nga xamee ni euh, boo toppee maamam dafay duggaat cana ba euh, bu fi mësta ñëw tamit deretam ñëw na fi ndax maamam ñëw na fi ndax baayam ñëw na fi jaar na fi te jaar yu rafet lañ fi jaar ban tënk nga ñuy tënkal fàttali ñu. waaw tënk bi dafa mooy sant yàlla bu baax di julli ci sang bi Seydina Mohamed mais di ko di wax rek fi ma daan jaar semaines yi yëpp ci jamono bu ñu ma dénkee micro. mooy di ñaanalaat ki nga xam ni moo fi bàyyi ko tamit nga xam macha allah dem gim dem daanaka tey moo waral jotaay bi tey ndax da ko daan def mu jugee fi rakkam wutu ko kon su ma neexee dem gi mu dem moo waral jotaay bi kon ñu ngi ci profité di ci ñaan yàlla na yàlla yaatal àjjanaam. ah li nga wax ni itam loolu dafa am solo maanaam nit ku ne euh, amul lu la mu doon te ci sama waxin damay wax toujours ni. wala boog sax imaam Alfayda moo ko daan wax daan wax na ku doon gileem faa nga doon sëf ba waaw doon gileem pare bëgg faa bàyyi sëf ba nee na mënul nekk waaw boo doon gileem jàppale ne yaa war a doon sëf ba kon taalibe gi ñoo ko doon bu ko doonoon lam aju aju lépp it euh, dañ koy jéem a doon waale mooy sa jéego yi mooy samay jéego mooy jéego yi sëñ Mouhamed mooy jéego yi ñu yor gopp yi mooy jéego yi ñu ca mbaret mooy jéego yi ñu sant sekk ñëpp ñëw di wettili beneen bi ci des mooy imaam Alfayda dafa woon nit ak taalibe bu fekkee lu mu la may nga jël lu mu la teg da war a nangu. waaw loolu tam bu koy bu ma koy indiwaat dama koy dama koy indi ci benn baat booy faral di wax rek euh, sa sa devoir. afasa <laughs> foofu laa koy foofu laa koy indiwaate donc kon mooy sunu mooy sunu coono yi ak yi dafa am yenn bërëb yoo xam ni damay wax ni njàmme euh, bu fekkoon si ni ci diggante doom ak way jur la danaan jamono bu fa taalibe demee mu ngay nàmp ca ween wuy juróom su ma ko mënoon a expliquer mu gën a leer jamono bu mel ni cooti gi fu mel ni mbaret fu mel ni sëriñ ba ak fu muy wootee jamono bi fa taalibe ba jug dem bu fekkonte ni day jëmm ak dañ naan jug na jëm ca ndeyam di loolu loolu loolu loolu la boo xam ne loo yëg la nag waaw ma ne loo loo yëg nag maes na ko wax nii rek waaye nag loo yëg la di ko dund ci jamono boo xam ne teew nga sa kanamu sëriñ wala teew nga ci sa mbiru sëriñ maanaam maanaam di ko liggéeyal moo it si sëriñ toog di wax ak yow ci li nga gëm di wax ak yow ci li nga gëm mën naa ne kàddu gu mu daaneel rek dafay mel ni jël dafa jël aw ween nàmpal la ko nga di ko nàmp donc kon lii dañu war a sant yàlla yàlla mënu ci boole ndax nag Mame Amary Ndack Seck Alaaji Njàmme du ko mu neex liggéeyal ko du ko mu neex bokk ci mbootoom du ko mu neex bokk ci roqam bii kon yàlla boole ci ab boole ci mbootoom boole ci ñi nga xam ne bu wootee ñu mën a ñëw maanaam wetu suñu ñax loolu lañ jàmme euh, ñu ngi ci soññiwaat ndaw ñëpp ci suñu kanam euh, cooti moo teew mbalit moo teew ñu jël ci exemple waaye ak lépp rek lu lu lu lu concerné Thiénaba lu concerné dëkk bi lu concerné Masek lu concerné tariixa bi rek euh, nii lañ ci war a taxawee. ak fu mu mën a nekk nag ci goxu Thiénaba fu mu mën a nekk ci roqu Thiénaba ndax boo xasee ba ni canaba rek ma tënk ko rek daaneel ko daaneel ci la imaam Alfa Dieng woon mootuñoo am wax naa la ko ay yoon yoon waaw waaye la répétition est pédagogique moom ngeen wax. Alioune da ngaa dégg tubaab bi. <laughs> waaw daf ni woon. nga ni la répétition. est pédagogique waaw daf ni woon mënatuñoo am dëkk bu dul bu dul canaba. waaw mënatuñoo amit wasila wu seen sekk. loolu ñaari baat yu ma ñor la wax naa ko ay maintes fois mu ni kon ñaar yooyu nee na luñ ci sonn duyul lu mu taar duyul nee lu mu jag duyul. waaw yooyu itam yóbbul la yoo xam ni waaw dañ koy wax wax taalibe yëpp Alaaji Njaame lii daal donc yàlla nañ fi yàgg ñëw wéet leen ba Abdourahim nag euh, li tax mu xaw a spécial ci ci ci tool yi euh, ak it tey li suñu wax ni xëy na lii daan am mais defin bi gëj na am li ko waral mooy ñëpp dañoo xamoon démb ne baykat la avant avant xilaafaam gi ku ne def nga xamoon ni moom bay rek la gëm ci bay rek la nekkoon defe naa na ngeen daaw rek ñun wis nañ fi wis boo xam mbooloo mu bari woon te boobu déggul Seexu Canaba yaakaar naa tam loolu bokk na ci liy joué mu am tund wi yëpp xamoon ne naka jekk Ba Birahim bay la bëgg waaye bay la jël teg ko ci kanamam yaakaar naa loolu tam dafa mel ni dafa feeñ ci oote bi waaw waaw si Alaaji Jàmme nekk lu solo xam naa ne du ñàkk ñu dajawaat euh, waaye ma fàttali rek Alioune dégg ngeen ci biir waxam euh, nee na bala ngaa réclamer say droit euh, tout d'abord da ngay def say devoir mu nekk jàngale boo xam tomb boo xam ne mën nañ cee yaatal lu lu yaatu dégg ngeen tamit ci biir en tant que jàngalekat mu ni la répétition est pédagogique euh, mooy euh, di wax di waxaat di baamuwaat euh, macha allah dafay gën a indi ay leeral loolu la ci bëgg a jub loolu la ci loolu la ci bëgg indi mu nekk ab leeral boo xam leeral bu am solo la bu ngeen déggee ci ay waxam tamit day sukkandiku tout le temps Euh, ci euh, diw nee na euh, muy wax nag imaam Alpha Dia lu bari di ko fàttaliku ndax yàlla moo leen boole woon kon du ñu def rek lu dul tënke nii ci jataay bi ñu toog mooy ñaanal Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck xalif généralu Thiénaba yàlla na yàlla oyofal suuf ci kawam dugal ko aljana te mu dëkk fa comme na mu ko daan waxee woote na def na mission mission jeex na tey mission maam Ahmadou Ndaak ki ko yore mooy Baye Serigne Abdourahim sekk wax naa ko barki démb rek am ku may waxal ma ne ko xalifa maam Ahmadou Ndaak ku koy seet ma nga fële ca kër gu mag ci kër Baye Abdou Rahim mënoo ko ci feneen ci biir àdduna euh, kon Baye Abdou yow tam ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla guddal sa fan euh, te wéral la ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, mag ñi nga xamee ni uutu nga leen ñoom ñëpp lépp luñ fi def rek yal na yàlla may la ba nga def fi lu ëpp liñ fi def ndax bu boobaa Thiénaba day dox rek te dox googu moom ñun ci ñun nekk ci njaboot gi ñun ñi nga xam ne ñooy njaboot gi loolu ñuy ñaan yàlla yàggal la fi te wéral la ci barke Seydina Muhammad sallallahu ñaanal tamit téléspectateurs yi ñuy seetaat saa su nekk kon ñu daal di continuer rek liggéey bi Euh, ci kanam tuuti ñu ñëwaat ak yéen ak yeneen yoo xam ne fii lay xewee ci biir Cuuti. Euh, Baye Ñambe si liggéey bu am solo boobu nga xam ne yaa ngi ko defal euh, si waar ba macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax kon ñu ngi nii si waañ bi dañuy xool rek ñi nga xam ne ñoo nekk si wàllu togg yi si liggéey bi. Eh, ñoom tamit eh, ñu wane seen contentement wane seen mbette fii si tool yi maire asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. la si liggéeyu. liggéeyu baraxu bi. waaw. ñun dañu ci kontaan dañu koy ñaanal yal na ko fi yàlla yàggal. ci baaku yonent bi sallallahu alayhi salaam. dañu kontaan lool ci toogaayam bi de liggéey bi dara manqué wu fi. ndax ku baax la. ku tabe la ku jaboot la yal na ko fi yàlla bay ci boor baaku yonente bi loolu moom xam naa ko ji de lépp fi mu ne pare na ñëpp ñoo ko yéene toogaay bi yal na ko fi yàlla yàggal ci baaku yonente bi loolu la ñuy ñaan ñun ñëpp waaw. macha allah ñu la fekk si wàllu togg bi nga togg euh, mbooloo mi ban dëkk nga jógee. man maa ngi jóge fii ci ngomin gi waaye taalibe seex laa waaw. dama ci kontaan moo tax ma dagg sama liggéey ma ñëw toogal ko de sëñ bi sama nijaay la sama xarit la sama xarit la lool de togg bi masallaaw masallaaw togg bi dama ci kontaan torom ndax dara manqué wut dara manqué wut lu ngeen yaakaar ne dina manqué rek manqué wu ko yal na ko fi yàlla sakal nag yal na ko fi yàlla sakal ci baaku yonente bi ci baaku yonente bi waaw loolu daal fan hmm. woote a bokkaat si woote bi. ci woote bi man damay sàmm damay jaay soow waaye fi mu ne moom jur yi amaguñu soow may jënd ci bitik yi may wayal di jaay waaw ma ànd ak nit ñi ànd ak samay mbokk séeréer yi olof yi pël yi ba waa kees dañu may wax ci kiñ ñu ne xamuñu pël la xamuñu naar la xamuñu lu ma doon mane den leen man fu ma jot rek maa nga fa. mari mii sama doomu ndey la doomu ndey la ñu waxante moom mii xam nga kon keñ naa waaw yal na jëm kanam yal na jëm kanam waaw loolu daal laaj wax naa ko ci moom. waaw ñu leen di ziar baax suñu taala ngi leen di nuyu di baax ah ñu ngi kontaan bu baax si li ngeen def. waaye ñu ngi ñaanal sam papa yàlla na ko yàlla may gudd fan gu ànd ak wér yàlla bàyyi ko suñ kanam ba si kanam a kanam ku baax ku lewet ku oyof ku ñime njaboot ñu ngi ñaanal tamit daa am a Tidiane Seck yàlla yàlla dooli leeram dooli yërmandeem mooy sama papa moom lañ ma bàyyi la loon bi may sëy yàlla dooli ko leer boole ko ak baayam baax yaak maamam ya doo ko ci àjjana fi daw si sama papa tamit ñu ngi koy sant baax di ko gërëm li ma waxoon léegi rek ku baax ku bëgg njaboot ko oyof waaw boole njabootam yépp yemale ñépp bëgg ñépp ku toogoom da nga yaakaar ni yow la gën a bëgg lépp lu mu am tamit si njabootam rek la koy defaat yan bi yàlla na ko yàlla oyofal tool tool tool si kawam ba liñ ci séentu lépp yàlla def lu gën a rafet loolu yàlla wan ñu ko yàlla bàyyi ko xelam defal ko sutura ndimbal ba sekk ku nekk yëg sa bopp ci toogaayam bi yàlla am na ko mën na ko yàlla ko yàlla def waa réseau bi tamit ñu ngi leen di ñaanu bu baax ay yéen booba tey kenn toogul lu xew yéen a ngi ñëw safine fi ne buñ toogoon tamit gisuñu leen tamit dina am neneen nu muy demee waaye ñu ngi ñaan bu baax yàlla yàlla def seen télé bi nekk télé yi mag a mag kontaan nañ torop ci taalibe yi ak dëkkandoo yi am di jàmm yi ñëpp ñëw nañ tey boo génnee xool àll bi sa xol day sedd guy yi bari na nit ñi bari na te koo ci xool rek pas-pas ak yéene la ñëwee mbadet àgg na fii àgg na fi ne ñu ngi jëm mbadet yàlla mi nga xam moo am fay yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla taxawu yàlla na leen yàlla defal jàmm ak sutura heure bu ñu wootee yàlla yàlla defal wér goo xam ne ñëpp dinañ mën a ñëw. yàlla def si kër gi jàmm def ko si dëkk bi def ko ci àddina bi yëpp waaw kontaan nañ bu baax wax dëgg yàlla waa kër gi ñëpp ngi nii. sama jabar yi ñu ngi nii kenn tardewul ñëpp ñëw nañ ak sama mageek maa si gën a nekk xale ñëpp ñëw nañ waaw kontaan nañ bu baax ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla mi nga xam moo am jàmm yàlla na defal ñëpp jàmm waaw jërë ngeen kontaan nañ baax kàddu yi am solo yooyu tabarakallah ñu ñëw jàkkaarloo waa suñu yaay mu nekk si wàllu dëbb bi waaw fa tabarakallah lu ko defee rek mère ñu ngi lay nuyu ah jóoba jubba maa ngi lay fay waaw maa ngi ci waaw kontaante gu neex di ñaan kay gi yàlla na jëm kanam kay gu gën a neex gën a dëgër yàlla na ci gii bokk ndax Baye Abdourahim day sunu baay bëggunu nag bëgg Baye taale Penda Mboup da ko daan seet si bi mu manee ba bi mu mënul saa yu ñëwee ne ana sama baay ndax sama baay lañ ko tuddee mu ñëw di ko seet si di ko jox taraanga di ma woo ca kër ga may ñëw di jël si taraanga ji mu bëggunu ñuy ñaan kayam gi kay gu gën a yàgg gën a barkeel yàlla na ci gii kay yu fi masa jaar rek yàlla na ko giisu ba taaliba yeeg ñëpp ak de xarit yeeg àndandoo yi ñëpp gis ci seen bopp yaakaar nañ ko nag ndax Baye Abdou dafa lewet dafa yaatu dafa bëgg ñëpp lu gën a tuut tuut mën na ko yendaloo ci béréb yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na sut man ñaw fan ca de sa barke ba nun mbuubeen nun ca nabar sekkee nag la nam ndax sunuy maama àndoon Samba Sadio ca nag dindiwun ci dara dañ koo gën a dëgëral yàlla na ko yàlla gën a dëgëral Jóob jërëjëf yow nag dangay sama séeréer ca xamoo ma ndax yow sama maam Daawur Jóob sa maam ko yóbbu woon Ablaay Mbuub ca na ba xàbbaan këram fa ne woon yow dag maa war a xàmmi <laughs> euh, macha allah euh, Talla si liggéey bu am solo boobu nga xam ni euh, yaa ngi koy def te ji ñu jàkkaarloo ak suñu maire tamit di ko laaj tey ñu ngi ko fekk si waañ bi mu nekk si liggéey bi tey ji yan kàddu ngay sànni xanaa kay gi ñu tàmbalee ko bisimilah rahmaani rahim eggalee ko alhamdulilahi rabil alamina di ñaanal Baye Cheikh Tidiane yal na suuf oyof uh, si kawam yal na yàlla yaatal bar sàqam di ñaanal Baye abdu nag yanam bi yal na oyof tooy yal na njiglaayam yal na fi toog ñu fekke te tal mu boole ak wér ak wér le ak mboolem jullit nag di ñaan yàlla nag rek lii nu yàgg koo def nag di ko def at yu baree baree bare ndax danoo ñëw nag mbaraat na cuuti nag fas yéene ko nag di ko ànd ak Baye Abdourahim ay ati ati at yàlla may leen fan wu gudd ak gu wér yéen it yàlla may leen fan wu gudd ak gu rëy ñuy ñaan yàlla ñu fekke ko tëtal yenam bi yal na oyof tooy ñëpp ku ko yéene yal na njiglaayam yal na di ak wéram ak mboole mu julleen ak ku ko yéene jërë ngeen jëf Diop Sarr. macha allah ah, si kaddu yi am solo boobu. Euh, fa tabarakallah euh, ngeen gis rek euh, macha allah ba tey ku ni góor si waañ ku ni jigéen si waañ ni góor macha allah ngeen gis suñu mag ji ngeen gis ni muy def ceeb bi noonu nga xam ne kon fa tabarakallahu njaayeen yi moom duñ gisee lii dinañ kontaan suñu bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw. waaw Baye Talla. boole ñaar yëpp ñu mhm. euh, mhm. euh, bi. Mhm. yëg-yëg bi ma am mooy yëg-yëgu démb ca mag ña lu ñu ndaw ndaw fekke nañu jamono Cheikh Ibrahima Seck man cooti gii dama fee yenu ay këlli laax ba sonn ndax dañ ma jox seen Ibrahima mu jox ma Baye Kab mu jox ma Baye Kab Baye kàbbu di xëy ci tooli sëñ Ibrahima cooti gii booba Baye Mor ña ngi fii Baye Ndikku Njaay Baye moori Yaawuli Njaay kon fii miin naa ko ah yàlla defit sama papa daan dawal mag ñi comme nii e, di ñaq di daw lu ci ku toog loo soxla mu def ko soo ko soxlawul mu dellu ca ay toolam dellu ca la mu war a def boo ko soxlaa nag mu ñëw nekkal la ci li nga bëgg waaye bu loola jeexee tamit mu dem ca moom liggéeyam loola lanu jàngal ci lañu ñu nàmpatal ci la yar ci lañu toq moo tax kullu kuy sekk soxlañu rekk boo bëggee ñu dawal la amu ci xeej nag amul seen ba Abdou nag di suñu xarit lool di xarit lool ba lii ba lii ñëwagul ñu fiy ñëw fii di ko fi fekk bu amee xew gàmm wala dara ñu jàpp ci kon tey du ñu ni guléet bi ma xëyee sept nangam maa ngi ci yoon wi saret daf ma àndaale ma bi ma ñëwee tam maa ngi ca waaroo ca ndox ma nekku ma woon ci togg ba demee nag ba det ma wi ñu ko nag comme togg yee fi des naa leen compagner ba togg yi pare ma yóbbule leen ko waaye eh, fa tubaarikàlla rek ñoo ngi sant di ko ñaanal yàlla na yàlla yokk fanam ni mu dikkee neex na asalaamaaleykum bi neex na eh, muy jàmm ji muy ni mu bëgg a boote wax na ko ni mu bëgg a nekkee wax na ko ni dëkk bi bëgg a nekk ni mu bëggee dëkk bi doxe ko wax na ko ni mu bëggee diine ji ak tarixe bi doxe ko wax na ko wax na ci xew yi ngénte yi wax ci céet yi wax ci dëj yi ni nañ ko delloo ca aada aada mooy lan aada mooy ni ko maam yi daan defee canaba ci yar lañ leen xamoon canaba ci diine lañ leen xamoon canaba ci comportement bu rafet lañ leen xamoon boo xam ni comportement boo xam ni àdduna bépp wër na ñëpp di ci ñee canaba kon nanu dellu ca loola dellu fa maam ya nekkoon dellu fa bàyyi yoo nekkoon Baay a Seck bu Baay Talaxaar dafa wane yoon wax loo xam ne nii fa tubaarakalla soo ba tey mi ngi wër nit ñi di leen wax ni doomu soxna su nungu la liggéey nungu la jaamu yàlla nungu la jàng du dëkk ci soxor lay dina mën naa soxor sax fa tubaarakalla wax na dëgg ku mel ni moom ni muy jàngalee ak nii mu def wax dëgg yàlla wane na ni ñun ñëpp nañu ñëw ànd ak ab Abdou jàppale ko kontaan nañ ci sëñ Ibrahima Seck sama sëriñ kontaan naa ci li mu def siggi ci li mu def fa tubaarakalla e, ñu ngi gërëm Baye Abdou di ko ñaanal di ko sant di ko gërëm di gërëm jigéen ñi koy jigéen ñi koy jàppale fii ci kër gi ñu leen di gërëm di gërëm sëñ Maodo mu fi nekk ak sëñ Ibrahima Seck ak Baye Alpha ñoom ak seen i rakk ñëpp yal na leen yàlla jàppale ñu jàppale seen baay jàpp dëkk bi dëkk bi jàpp leen comme ni ko sëñ Ibrahima waxoon. alfa tàllalal sa loxo say rakk ñu tàllal la seen loxo ak yeneen i loxo Baye Abdou nag loolu la woote asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa xale yooyu ñu ñëw si soxna Sagar muy présidente bu Zikrullahi moom tamit euh, ñëw rek si liggéey bi macha allah euh, kon li nga xam ne moom lañ ko fal si liggéey sëñ Asec borom ndigal kon moom toogaay euh, fépp fu ko woo rek incha allah dafay taxawee kon loolu kon tey jii ban contentement nga am si liggéey ba Abdourahim waa asalaamaaleykum wa rahmatullah liñ sante yàlla jul ci Seydina Mohamed sangu sang yi Ah, dañuy dellu rek santaat yàlla rek di ñaanal Baye Cheikh Tidiane Seck yàlla na xippee ji àjjana ñu koy jooy na te noppeegul te duñ ko fàtte bu mukk ndax dafa doonoon kenn koo xam ni ah kenn la fi rek dañ koy ñaanal rek mënuñoo sori ci moom wante di ñaanal nag Baye Abdourahim yàlla na fi yàgg te wér kontaan rek lañ def nag di ñaan yàlla nañ ko fekki ay déwén yi déwén waa may président daayira Zikroulah toogal fi nag waa daayira bi ñëpp ñii ñëw nañ ñu ñëwul it am nga yéene ñëw di sañ sant sëñ a sekk borom digal lu gën a bari kontaan dañ def rek nag dañoo kontaan suñu xol dafa sedd guyu dañoo kontaan bu baax ñëpp a ngi nii nag mën naa ni Thiénaba yëpp ñëw nañ ku ñëwul it am nga yéene ñëw kon mën naa ni ñëpp ñëw nañ ku fi teew rek teewal nga ñu fi teewul dañuy sant yàlla bu baax rek di ñaan ñu fekkee ko ay déwéni déwén di ñaan mbay mi barkeel ñi fi nekk toogaay bi daal yàlla na yàgg kontaan nañ macha allah. macha allah kon euh, lii lañ leen jëlale woon fii si waañ bi ànd ak euh, suñu mag suñu xarit suñu soppe euh, El Hadj Ndiambé Guèye allah yéen bi nga xam ni moom la bàyyi seex amoon muy màq. yal na ko ko suñ borom defal si dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant mbokk Thiénaba TV yi nga xam moom la ñu àndal si liggéey bu am solo bi ànd ak euh, Talla Sarr si euh, caméra bi ànd ak euh, ki nga xam ni mooy Modou Fall ak Pape Serigne Thiat macha allah moom di sama caatu filmé fa tabarakallah Euh, moom tamit ñu ngi koy ñaanal euh, mu nekk euh, grand caméraman bu mag a mag yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko suñu borom def di ñaanal mbokk yi nekk Thiénaba TV yëpp ñoom El Hadj El Hadj Ndiouga Meng Serigne Mamor Serigne Pa Abdoulahi Mboub ak ñu ñu ko bokkal ñëpp fa tabarakallah Khalifa Ndiaye macha allah moom tamit nekkaat si beneen wàllu liggéey bi Thiénaba TV daal fépp foo xam ne liggéey Thiénaba mu ngi fa rek ñu ngi fa. Euh, di liggéey liggéey bu am solo ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. solo boobu nga xam ne fa tabarakallah ñu ngi ànd ak Thiénaba TV rek euh, si liggéey bu am solo bi euh, jàkkaarloo ki nga xam mooy soxna Xadi ànd euh, ñi nga xam ñooy waa kër Baye Talla Dia nekk si liggéey bu am solo soxna Xadi bi nga ñëwee si liggéey ba Abdourahim mu woote ñi nekk si waaru bay bi ñi nekk si wàllu waañ bi ngeen nekk si liggéey bu am solo bi te ban maa nga am si woote ba Abdourahim xanaa di sant yàlla bu baax di jëm ci di kontaan loolu di sant yàlla xam ne ñu commencé wate wati la Baye Abdou fa mag ñi doon jaar ñun ci li ñu gis fi la jaar kon nag lépp lu fi mag ñi doon def li muy def moom yàlla na leen sut di ñaan Baye Cheikh fa mu tëdd yàlla na yàlla oyofal ko ñun moom ay Baye Fallou Cheikh ba lañu fu ñu wootee ñu wis leen nañ doon def ci Baye seex ñoo def ci Baye Abdou man kenn ku ne sama xarit nga Baye Cheikh sama xarit lool Baye seex bëgg na ma ba ma xam ne damaa bëgg waaye Baye Abdou mi ba mi tout temps que moom sama waajur Baye Abdou bëgg ñu suñu waa kër man xam dafa bëgg suñu waa kër ni mu commencé ak gëm-gëm yi taalibe yu jël yàlla bu ci seytaane dox taalibe ni ñu commencé yàlla nañ ko continuer topp ci Baye Abdou xam ne mooy kilifa mooy a général mbootoom mi yaatu na yàlla na gën a yaatu ni ñu commencé gis daal ñoom suñu xel dal na ci Baye Abdou macha allah yàlla na yàlla àggale kontaan naa bu baax macha allah sant naa. maam amare baax lay lay Baye Abdou Rahim tamayino yaaya lu dul jeex yaay donay amari ndaak lay lay lay lay lay lay lay lay la maam amari baax lay lay bay ak rayim yow lanu woolo yow lanu doylo yaay donay amari ndaak amari ndax lay lay laa baay Abdu danga baax laay lay laa laa sama nijaay loolu ma mënuma ko cee ñàkk def ndax baay maa sa waaw xanaa kontaan lool nag xam ni yàlla moom lu mu dogal jàmmanu ci dara loolu lañ daan ñaan ba yàlla def ko ci barke Seydina Mohamed waañu moom dun na tey dong lañ ci masane Baye Abdou moom day ku baax ku jàpp nit ñi te bàyyiwu bàyyiwu ci kenn ñëpp la xam ni Baye Abdou daa baax yiw noppi ñu ngi koy ñaanal yàlla ci waañam bii ak yenam bii yàlla na oyof tooy ni wëttéen man moom may Baye Fall Baye Abdourahim sama góor yi mooy Baye Fall maay Baye Fall Baye Abdourahim Seck ñu ngi koy ñaana gudd fan ak wér yaram waañ yi yàlla nay téeméeri waañ ak juróom ñaar fukk ci ren bokku ci barke Seydina Mohamed kontaan nañu lool ci waañ yi dëgg yàlla jërëjëf euh, téléspectateurs yi ànd ak ñun waxoon nañ leen ko léegi euh, jërëjëf Talla Diagne Diop euh, ci reportage bu am solo boobu nga xam ni def nga ko ci waañ wi may fàttali ni waañ wi cooti la nekk ñu ngi fii nag ci mbadet ndax waxoon nañ leen ko ni cooti moom bay nañ ko ba mu pare Euh, bu ko defee euh, fii ci Mbadet la ñu ñëw euh, bu ko defee rek fekk fii tamit jàmbaar yi nga xamee ni ñoo nekk fii ñu bokk ak yéen reportage bi Gora ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar bu baax Baye Ndiame di nuyoo ko ziare waa Thiénaba TV yëpp di ñaanal sama baay Serigne Abdou Rahim sekk al Khalifa yàlla na yàlla yokk ak wér yàlla na yàlla guddalu fanam woote bi yàlla na ko yàlla yàgg woote te ñu yàgg koo mën a wuy si ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi la ci waar wi ngay liggéey. Euh, wax naa ko léegi ni mbadet euh, cooti la ñu jëkkee euh, cooti moom yàlla def na bay nañ ko ba mu jeex Thiénaba TV itam def na fa reportage bu am solo ginnaaw bi dem na si soxna yi fi ñuy préparé xéwal yi ci kanam tuuti dina pare waaye ñëwaat nañ fii ci mbadet fekk fi macha allah gis nga ñu fekk fi rek ñu gaa ngi ci waar wi te ñu ngi avancé yow ban sentiment nga am bi nga ñëwee fekk liggéey bi demee. Baye Ndiaye xanaa mbégte waa mbégte kontaan bu yaatu. parce que dafa nekk loo xam ne amuñu occasion souvent di ko def ndax li ñuy déplacé wu dafa bari waaye ñaari heure bu ko fekkee rek amuñ ci sago ndax dañuy xam ne occasion la boo xamante ne boo ci góorgóorluwul mën naa am euh, di nga ko yeexeete fekkee donc mbégte lañ ci am di ziare sëñ as mi ci sama ni macha allah comme noonu rek noo bokk liggéey waaye di ziare président daayira sopp Cheikh Ahmed Tidiane Chérif di sëñ Modou Koumba Cissé nga xam ne biig la jógee Mauritanie biig la agsi ci voyage boo xam ne def na 7 mois ci àll bi mais actuellement moo ne ci machine bi sama ginnaaw Euh, biñ ñëwee ba léegi mu ci machine yi moom it euh, parce que moom it euh, comme ni ma koy waxee rek li ma dal moo ko dal occasion la boo xamante ni à ne pas manquer la donc boo ci jotee rek danga ciy daw parce que ku ne war ngay ñaqal sa sëriñ war nga koy ñukkal waaye war nga koy ñukkal foo toll parce que loolu mën a jox barke barke boobu nuy sàkkoon nag yàlla na ko yàlla defal amiin yaa rabbi barkeb euh, ñaq barkeb euh, euh, waaye barkeb ñukki-ñukki mu nekk ñett yoo xam ne yàlla na yàlla boole ñu barke yooyu yëpp waaye góor a beneen laaj muy laaj bu mujj bi mooy woote bu njëkk bu Baye Sëriñ Abdou Rahim xalif généralu Thiénaba macha allah bi nga ñëwee fii ci Mbadet Euh, est-ce que sa xel demul ci nag euh, góor ga muy Baye Cheikh Ahmed Tidiane euh, mi nga xamee ni macha allah woote na ay yoon fii. waaw Baye Ndiame bu baax sax. waaw bu baax dem na suñu xel dem na ci moom bu baax bi ñuy agsi toujours rek bi ñuy gaare toujours rek waaw ay jëmmum dong la ñuy gis ci kanam xar kanam bu ñu xool waaw ay jëmmum rek la ñuy gis parce que moom it xam nga comme ni mu demee woon ci ñun surtout jeunesse su Thiénaba ni mu demee woon ci ñun ñun daf noo taxaw ñooy daayira yi ñun dañ cee rawoon waaw noonu waaw daf noo bëggoon ba fu nu nekk mu fekk nu fa dañuy fekk ci ay gàmmu yi ñu dem dañuy fekk ci ay jataay ñuy def teraanga yi ñuy yóbbu mu ñëw génnal boppam diñu fekk ci biir tàntu gàmmu donc dafa bokkoon ci ñun dafa bokk ñun tellement que daal daa ñaare waxtaanam waxtaane ko sax souvent dañ koy moytu parce que waaw pour suñu xol tooy ci dafay dafay yomb mais yàlla na yàlla yeesal njëggal ak yërmande ci moom xaari ko àjjana teg loxo ci njabootam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw euh, mu nekk waxtaan wu am solo kon euh, ñëw nañ Mbadet. waaye bi ñu ñëwee Mbadan li ñu njëkk a def mooy lu ñu xool rek Baye Cheikh lay la ñuy gis euh, kon fa mu tëdd moom tamit euh, muy Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck yàlla na yàlla dugal ko aljana te mu dëkk fa waaye ñuy ñaanalaat njobootam gi nga xamee ni ñoom la fi bay euh, njobootam nag ñi ci ki ci jiitu mooy le xalif général Baye Cheikh Baye Abdourahim Seck Euh, di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam te wéral ko euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam euh, di ñaanal tamit sëriñ moo Momadou Seck mu bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane di xalifaam ak njabootu Baye Cheikh yëpp macha allah wax nañ ko boo ñëwee Mbadet boo xoolee garab sax boo xoolee danga nga ciy gis Baye Cheikh Ahmed Tidiane kon yàlla na yàlla dugal ko aljana Modou lañu taxaw Modou Koumba Cissé góor a wax na ko léegi ci biir waxtaanam mooy ñun ñi nga xamee ne yàlla def na dañuy tukki di génn réew mi lu bari dañuy nomm lii Euh, moo tax bu ñu ñëwee rek euh, dañuy ñëw rek bu ñu déggee ni occasion am na dañuy profité ci occasion boobu loolu moom moo ko dal biig ci guddi la ñëw man sax maa ngi koy doog a ji justement euh, fii ñu taxaw ci laa koy doog a xamee ni ñëw na kon Modou ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi bu ko defee rek ñu doon mu nekk laaj ak tontu. Mhm. waaw sëñ Moussa Ndiané Gueye ñu ngi lay fay bu baax a baax di ziare. waaw Kaala boo ma mënee jëlal fële ci Serigne As euh, ci machine bi nga jëlal ma PC boobu ñu continuer waxtaan bi. waaw di ziare wàcc na ba yëpp di ziare wàcc na ba TV di ci jiital ci nuyoo bi Serigne Alpha Sall mi nga xam moom mooy directeur bi di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura xéwal ñu ngi lay fay bu baax sëñ Moussa Ndiané. Ah, Modou yaakaar naa ni euh, biig ma ñëw euh, diggante dëj bi ak léegi muy bàyyi bi bàyyi si Ahmed Tidiane génnee ak léegi yaa ngi doog a ñëw canaba. Euh, ñëw nga euh, fekk fi euh, mu mel ni Baye Cheikh demul tamit ndax yaa ngi fekk Baye Serigne Abdourahim Seck mu jël ndono li waaye jël ko rek fi ko góor gi bàyyee sof te sof ba rek daal di continuer ban santi ma nga am. waaw yëg-yëg bi ma am fi mu toll nii daanaka lii nii mais nag damay sant yàlla bu baax parce que lii ba ma gëjee dal kenn xamul kañ la mosu pour ma ñëw fi sax tombeek ñu war a dem ay tool dafay dafa dafa gëj a am ma ñëw bii ci guddi. xëy dem ko siyaare Baye Tall dem kër Baye Cheikh gën dem sama kër nijaay Pape Gueye tombé ñu war a ñëw Mbadet fekk ma programme woon pour dem kër Baye Cheikh ma ne kon naa ànd ak ñoom ñëw Mbadet su ma paree jógal dogalem foofu dem ko dem ziare ji ñoom suñu Modou yooyu yàlla ji leen. waaye yëg-yëg bi ma am fi mu toll nii daal Moussa sama xel dafa demaat ci démb parce que lii jamonoy démb la ma fàttali jamonoy sëñ Alpha Mamour Seck jamonoy sëñ Modou Seck ci la sama xel demaat loolu laa gisaat fii moo tax. Euh, nit ñi dañoo gëm maam Amary Dak Baye Cheikh dañuy ñaan yàlla yàlla na yàlla defal ko njëggal te oyofa suuf ci kawam atte ko ci yéen maanaam te boole ko Seydina Mohamed dëkk waaye ca àjjana tam dëkk fa waaye Baye Abdourahim dañ koy ñaan yàlla yéen bi yàlla na oyof waaye nag yàlla du yen du yen ko attan waaw yàlla du yen ko attan su xoolee Baye Abdourahim ba jox ko yéen bi c'est parce que mën naa yenu yéen bi am nañ ci yaakaar yàlla na ko yàlla mottali lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam naa ñu ngi lay xaar dañ lay bàyyi dañ dajawaat euh, bu ko defee mu nekk kàddu yu barkeel Baye Mor bu ñu mënee jege tuuti rek ñaari baat euh, Baye Mor Gueye di xalifa euh, Baye Mor Gueye macha allah moom tamit fekk nañ ko ci tool yi taxawaayam nag yomb naa expliqué ndax taxawaayu démb la ko waxee maam yàlla yi jàpp ci Tafsir maam Mor Gueye jàpp ci Baye Talla Gueye mii waajuram tey mu nekk ab xalifaam euh, nekk xalifa tafsir Mor Gueye taxawaay yooyu rek la muy taxawaayu démb yi Baye Mor ñu ngi lay euh, yàlla yàlla nangu ziar yi ñoo ngi lay delloo ziar di la nangul ziar bi fa tabarakallah euh, ñu ngi la fekk Mbadet yàgg nañ laa dékk micro tamit Mbadet tey ñëw nga Mbadet mu nekk woote bu njëkk bu Baye Serigne Abdou Rahim ginnaaw bi Baye Cheikh Ahmed Tidiane làqoo sentiment bi lan la. sentiment bi li ñuy jëkk def sëñ Diame mooy ñaanal Baye Cheikh ginnaaw bu nu waxee ñi nuy seetaan ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu barakaatuhu ñu ñaanal Baye Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck yàlla dugal ko ci àjjana ya gën a kawe. yàlla jéggal ko ay bakkaaram te ginnaawam yàlla lewetal ko mu sedd guyu barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal Baye Serigne Abdourahim Seck fa tabarakallahu xilaafa gi yàlla na yàlla woyefal ko yàlla yàlla yàggal ko ci moom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa lépp lu mu yéene ci jaami yàlla yàlla yàlla yombal xilaafaam yàlla na ci liggéey loo xam ni kenn mësu koo liggéey ci xilaafa ci barke na sallallahu alayhi wa sallam mu jégnu euh, tool bi nag moom fa tabaarakallaahu sëñ njàmme ci woote Baye Abdourahim bu njëkk euh, mën naa tudd sax bu njëkk waaye mën naa tudd it euh, bi nga xam ne rek wootee rek ndax nekkul ni tool bi Baye Abdourahim moo koy wootee wala Baye Cheikh Tidiane moo koy wootee wala keneen moo koy woote mais tool bi maam Amari Ndaak sekk moo koy wootee kon lim yëpp dañ koy boole ci lim yi nga xam ni mooy limu maam Ahmadou Ndaak ndax li lay tax a xam ni maam ahmadu Ndack Seck mooy woote tool bi ku toog ci fauteuilam rek yaa koy woote kon maam Amari Ndack la maam Amari Ndack la ñu wuy si jëwrin ji nag tey mooy bàyyi sëriñ Abdourahim Seck nu koy ñaanal yàlla yàlla na ko woote ay téeméeri at ci barke sallallahu alayhi sallam noonu tam nu wuy si ko lépp loo xam ne ñore na ci tool bi yàlla yàlla barkeel ko ci barke sallallahu alayhi wa jur gi ciy for lu ci lu lu ci lu ci lekk lu ci ñaq ku ci ñëw taxaw fi yàlla na nekk sa faju aajo ci biir ak ci ndax loolu nag mooy jubluwaayu tool bi fa tabaarakallaa du luñ fi amee mais fajukaayu aajo la waaw loolu loolu mooy xalaat euh, tey euh, am nañ yàgg nañoo bu ñu taxaweek yow tamit bëgg a jël rek lenn loo xam ne message lay nekk tey euh, bu ñu doon laaj message bi lan la. message bi mooy danu li nuy wuyoo nan ko doon mooy ay taalibe nanu doon ay taalibe taalibe nag baatu arab la ab kuy wut dara koo xam ne dafay wut ab taalib bu fekkee kuy wut la ak lu ñuy wut li ñuy wut day tudd al matlub kiy wut day tudd ta ab taalib taalib taalib nag li muy li muy wut il faut mu am système bu mu ko amee bu fekkoon da ngay rëbb benn rab boo xam day naaw te bu la yëgee day dem il faut nga yoot te ñun ngërëmul suñu borom la ñuy wër ab taalibe mbaax lay wut ngërëmul suñu borom kon il faut nga nangoo fuglu bàyyi loolu xel xam ni itam képp kuy wut lu baax il faut mu am seytaane yu muy pakk yu muy def sa diggante pour xañ la loolu waaye yow yaay bàyyi xel ni lu baax ngay wut euh, kuy wut lu baax nag bul toqi bul yoqi kuy wut yàlla boo sawarul sax am ko wóorul te dooroy Cheikhu Tidiane kon loolu yëpp ay message la li ñu war daal mooy nekk taalibe taalibe euh, xam li ngay wut alaaj taala siis dafay wax ni euh, booy wut fexeel ba am wut lu am fexeel ba wut ko fa mu am fexeel ba wut ko ko ca ka ko am fexeel ba xamit ni nga koy wutee ñeent yooyu bu matee rek ci ab taalibe rek fa tabaarakallaahu lu mu wut ci sëriñam dina ko am loolu mooy message bi fa tabaarakallaahu. ñu ngi lay jaajëfal kon di la bàyyi rek nga continuer ci liggéey bi nag di sant itam waa Thiénaba TV di leen jaajëfal ndax gis nañ ni fépp fu kër gi taxaw rek yéen a ngi taxaw ci wet gi yàlla na yàlla yokku leen aar leen sàmm leen wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu xam naa Talla Niass soo ma mënee dimbali ci le porte parole euh, di xalif Euh, muy Baye Serigne Diop Seck macha allah voilà kon suñu cameraman ne alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Moussa Ndiame ñu ngi lay nuyu di muyu bokki Thiénaba TV yëpp di leen ziyaara bu baax macha allah wax nañ léegi muy euh, am na ku ni ma bi ma duggee Mbadet bu ma xoolee garab yi sax Baye Cheikh gis waaye bu ma tourné seen Baye Diop euh, damay mel ni moom la nag moom la xalaat boobu bala ñoo dugg ci waaw macha allah mooy lu bokk nuroo rawati luy lenn wolof moom danaa lu bokk nuroo waaye luy lenn moom loola rek la mooy ñoom li ñu gis mooy bu nu gisee seen xel ne ci Baye seex mooy baay Cheikh mooy nun nuy nuy moom ndax alwaladu sirru ab yi doom mooy mbootum baayam te eh, alwaladu min kasfi ab yi doom fàgguteefu waajuram la kon ñun ñooy Baye Cheikh ñooy Baye Abdou mi nga xam ne tey jii moo fi wuutu Baye Cheikh ñu ñëw sofaat ci moom ngir liggéeyub diine ji moom euh, continuité la loolu moo ñu indi tey di euh, muy continuité boobu comme ni ñu koy waxee euh, Baye Abdou woote ñenn ñi naan woote bu jëkkam ci xilaafaam ci tool yi waaye man ma ni woote benn ci woote ma Omar Ndak doon woote mu commencé ko ba mu wootee ni nañu dem Samba Sadio wala nañu dem fekki maam Cheikh amadu woote boobu rek ak bii benn lay nekk tey yow ñu ñu gis la nga ñëw taxaw tamit taxawaay ya nga daan taxaw démb lan ngañ ciy expliquer lu leer macha allah li ma ci expliqué rek weesuwul ni dama daan gis fii suñu baay sëñ Talla gis naa ko fii ci mbadet mu sol fa forog bu weex jël gaala gu ñuul takk ci ndigg li jiitu nit ñi topp ci di liggéey kon tey ñun suñ ñëwee sol ay grand bubu bu dul woon seen barke yi nga xam ne ñoo wàcc si ñun tey kon dañuy wax sax ni ñun yaafus lañ kon mbir mi continuité la li nga xam ne maam Amari Ndaago ko fi sosoon muy diine ji nga xam ni tool bii am nañ yaqin ni ku fi tuur saw ñaq rek yàlla setal la wicc ak bàkkaar ndax mag la mu yàlla gërëmoon muy maam Amari Ndak mu geddoon lépp àdduna diine jaraloon ko yëpp ba yàlla gërëm ko mu am ngërëmul yonent bi am ngërëmul Seydina Cheikh am ngërëmul Seydina Limaal Maalik ak na Cheikhu ba li sosoo ci moom yëpp ku ku barkeelu ci moom rek bokk ci ngërëm li te ku am ngërëmul nit yàlla am ngërëmul Mawlaana Tabaaraka wa Taala da ngay set wicc ak bàkkaar lépp luy sa aajo yàlla da koy faj ñu fas bii nga xam ne liggéeyloo nañ fi nit ba mu ubbi ko ci yàlla barke boobu ñun ñu bokk ci taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw pour xànc si ko waaw loolu moo ñu indi ñu ñu. beneen xañ na mooy laaj bu bu ñu bu mujj bi euh, ginnaaw tàggoo euh, mooy euh, xañ na tool bi moom xam nañ ni mbooloo ñëw na fi ndax cooti bay nañ ko ba jeex na ñu ngi mbadet waaye tey am na koo xam ne xañ na mu ngi jàkkaarloog ñun te ñëwul woon tey kooku loo koy soññ ci beneen woote bu nekk suñ kanam. macha allah di soññu ñëpp rek ni ñu soññee suñu bopp. di wax léegi ni bi ñu waxee ni cóoti fa lañ xëyoon wàcc si ma ni loolu li mu wund rek mooy euh, dogub taalibe yi ak li nga xam ne mag ñi fi jóge doon nañ ko ñaan ci lu gën a bees rek ëpp doole ci diine ji gën a bari gën a barkeel seen ñaan yooyu nangu na nangu na ci Baye Abdou itam wane ni Baye fii ci tool yi fekk nañ ko fi ba tàyyi mu wàcceel Baye Cheikh mbooloo mi ci loo xam ne ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët kon su wootee ñu xëy mba cóoti mu jeex ñu wàcce si mbadet loolu yombut a yombul yombut a gis waaye fi liñ koy firee rek mooy ñaanu maamam yi ak baayam yi ak mag ñi ñu wóotu ci lu gën a bees rek gën a yokk gën a jëm kanam loolu lañ gis ni kon ñaan yooyu nangu na yàlla na gën a barkeel ci Baye Abdou barkeel ci mbooloo mépp itam. Baye Serigne Diop looy waaw xanaa di am mbégte bu baax ak kontaante ci ni ñu gisee tool yi nga xamante ni boo bokkee ci mbir muy yokk sa yaakaar day dolliku waaye boo bokkee ci mbir muy wàññeeku sa yaakaar day wàññeeku ñu ñëw fi nag gis ni dafa dolliku loolu dañ ciy sant yàlla te di ci ñaax ñëpp itam jàpp gu ñu jàppoon muy benn ñu dolli ko muy fukk ndax euh, lu ñu amoon buy benn ñu am ko muy junni di sant Thiénaba TV nag di la ci jiital ak ak directeur Alpha ak Talla Sarr ak sëñ euh, Talla Niass Diop ak euh, ñi mu àndal ñëpp waa caareen ñi ñëpp a ci biir macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Ah, jërëjëf Baye Serigne Diop Seck macha allah ci kàddu yu am solo yooyu kon mbokk téléspectateurs yi taxawaayu Thiénaba TV noonu la demee woon démb. Euh, noonu la demee tey te noonu lay continuer di demee incha allah ndax c'est la télévision de Mame Ahmadou Ndack waxoon naa leen ko wax naa ko ci ay reportage yu yaatoo yaatu euh, ñu ngi fii ci euh, Mbadet suuf suñu yàgg samp suñuy trépied waaye suuf su ñu yàgg taxaw yore micro tamit di ci sànni ay kaddu dañuy duggaat ci tool bi nag dugg ci tool bi rek xool kilifa yi dëkk leen ay ay ay ay micro bu ko defee ñoom tamit ñu dollu ñu rek mu nekk loo xam ne ab bind la bu ñuy yóbbaale. Euh, mbokk yi delluwaat jaajëfal leen yéen ñi ànd ak ñun boobu ba léegi masallah allah euh, ci euh, fii ci Mbadet ginnaaw bi nga xamee ni jóge nañu cooti cooti nag ma wax leen ni ay jàmbaar ñoo fa jóge ñëw fii ndax bi ñu xëyee balaa midi bay nañ cooti ba mu jeex ñu daal di nag dajaloo ñu ñëpp àndandoo ñëw fii macha allah ñëw nag loolu nag bu ngeen gisee mu mu mu yomb mag ñi daan nañu wax ñu ni diw de jàmbaar la ñu ne ak bëti baay xam naa ni sëñ Pape Seck mooy moo mooy gën a sax mën a gën a leeral wax jooju euh, loolu nag bu li ma ci wundu mooy moom mu ngi toog jàkkaarloog euh, ñi nga xamee ni ñoom ñooy liggéey euh, comme bëtam yi mu jàkkaarloog ñoom am na lu muy def ci ñoom ndax bu ñu gestoo seen ko dinañ gën a daal di defarwaat gën a ñemewaat waar wi seen coono daal di wàññeeku ndax loolu da am leen lu muy wundu Baye looloo tax Thiénaba TV ñëw dëkk la micro ginnaaw boo nuyoo ba pare rek wax ñu euh, ban yëg-yëg nga am bi nga ñëwee gis mbooloo mi euh, ginnaaw bi ngeen wootee nit ñi ñëw am na benn waaye nag bu ni ma ñi war a woote woote nañ waaye ñun dañoo war a ñëw moo tax ñu ñëw yow loo ci xalaat. alhamdulilah xanaa sant yàlla. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ngi gërëm sunu borom tabaraka wa ndax weer ca ginnaaw boo ñëwee fii. suuf soo koŋ nga fi gis. tey jii boo fi ñëwee. fekk suuf su wert te suuf su wert neex na ci xol waaye rafet na ci bët kon ki nga xam ne bii moo siim suuf si ba mu ba mu mel nii mu génne pepp yi woon ci biir ba mu mel nii kooku moo yeeyoo ngërëm nu ngi koy gërëm te di ko sant eh, barab bii nu nekk nag barabu ngëneel la barabu ngëneel mooy lan mooy barab barabu dolliku la ndax képp ku fi ñëw wut si woo fi daraja wut si woo fi alal barke nga fi wut si te nag albarakatu lil mutabarrikiina ku sàkku barke rek kay am barke kon alhamdulilah rabbil alamina dañu yàlla dolli sutura lii nga xam ne ci la nekk nii wax naa ko gaañi sàng ci cóot yi ma ne leen képp kuy toppaat gerte soo déegul ñax soo sëggul di nga dagg gerte mbaa nga déeg ñax toppaatum gerte gu ndaw force nga nangoo sëgg buddi ñax wala nga jéem a ruqanti ci ëllëg bi dagg gooñ sëñ bi ne xanaa yow baykat nga man ko ba fi may wax yow baykat laa de moom kay képp ku yor di toppaat gerte force nga sëgg buddi ñax baa nga dagg gooñ mënul ñàkk kon alhamdulilah rabbil alamin sàng bi ñuy ñëwee fii itam ci mbadet bi may wolli ma ne gaa yi gis ngeen suuf su weex sii nga xam ne moo ne ci tooba mi gàncax gi sax ci suuf soosu ca jamono ba ni bi ni ay gone ku ñu masaa sas sasu wolli ñu fekk taatu euh, euh, dugub goo wolli ñu fekk ca suuf soosu ndañul gopp dina la sàppi ñu ne ah suuf si bu deñee kon gàncax gi day daanu de man leen du ci dara suuf si dafa am benn gunóor bu gàtt bu xonq wala gunóor boo xam ne day xànjar li gën a bari dañ fiy dëkk te day muusu gàncax gi ba bu tawee du màgg su ko defee dañ la naan soo wollee nii ba wër ba gàncax gi jëlal sa baaraam nga fëgg fëggal ko ba génn suuf su weex soosu su ko defee gunóor bi génnaale dootu fi am place loolu nag euh, ku yàgg bay yaa koy xam waaye ku yàggut a bay doo ko xam man nga man ngaa wolli rek dem fekk na yaa nga bàyyi gunóor booba ca cuur su weex soosee nga xam ne ci la tooba mi sax da nga koy dindi donte gañ euh, tooba gi gàncax gi day daanu sax waaye te bu buy taw muy siggi te bu siggee muy gën a gaaw a màgg gée nga doon bañ mu daanu ba tax bàyyi ca cuur lu ma taxam la waaye nag bi nu mag ñi juree bàyyiwuñu nun toog dañ noo yóbbu ci tool yi jàngal nu liggéey ba nu man ko ba tax na nun sunu xasee ne ci àll ba sunu yaram tàng xamatuñu wàcc fii de su ma masaan ñëw àllarba ci jamonoy Baye Cheikh wax naa ko léegi sëñ Abdou ñoom man leen daqaar gii wékk fi naa naa fi sama dara wékkiwuma ko ba jant so laa koy door a ndax man xaw ma dem ci tool tëdd wala dem ci tool wër naa jaagin jëf rek xaw ma ko man duma dem ci duy moos di fa yées ba awuma ndox su ma masaan ñëw yoruma gopp damay buddi ci ndéq mi damay buddi ba ba tooy xëpp wala ma dajalee dajalee dajale ba ñaqatooy xëpp masumaa ñëw moos toog ca ba may wér mukk damay liggéey te yaakaar naa ku miin cooti gi miin nga ma ci loolu kon alhamdulilah rabbil alamin ñi fi ne nag nu ngi leen di gërëm ndax sëriñ Abdou danoo jiitu ban jógee cooti danoo jiitu fi mbadet mm. mu ne ah lii de du jeex ndax tool bi yaatu na xaw bi bari na man ka du ci dara de waaye ba demee ba commencé fas fas yi commencé ñëw laa ko ne sëñ bi ndax sa xel dal na mun sama xel dal na man ka xam nañ lii de soobee yàlla bala nu fay jógee tool yi jeex gars yi jàmbaar lañu fas yi jàmbaar lañu ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ndax lii kat képp ku fi ñëw yàlla la fi indi waaye wut si woo fi wërsëg si woo fi daraja wuti woo fi woo fi benn cër budul ci ru yàlla kon gërëm nañu leen yéen ñi nga xam ne bii yéen a yor lii nga xam ne mooy waxukaay bi di ci feeñal waxi jaam yi waaye di ci feeñal it jëfi jaam yi ndax nag euh, sirran wa alaaniyatan dañ koo wax lu ma doon lu ne ci jëf baax del def ci sekkare waaye nag del def ci lu feeñ bu feeñal jotee feeñalal waaye bu nëbbu jotee it nëbbal fi mu ne nii nag lii feeñal ko daa jot ndax gis nga fi ay nit ñoo xam ne fooguñu woon ni lii daañu ko man te tey jii ñu ngi nii topp ci machine kii ma seen nii mu romb ma léegi sëñ As Seck. waaw boo ñu ko mënee may ci caméra bi tuuti ci ginnaaw waaw. ñu ngi nii romb ma léegi te li gën a wóor ay moromam a ngi ci biir di def nii ñoo xam ne kenn foogee wu leen ko woon. Modou Kumba sa jarbaat damaa ñëw ba di ko traversé bi may wolli fee mu sigg nuyu ma ma wax te Jóob defe ne waa Ngombel la mu ne ma siise ma xoolaat ko ni ko moo naaru gànnaar yow ndeke mën nga lii ndekete xam denc moom. jamono boo jaaxlee dellu ca alhamdulilah rabil alamin mbayum machine ku ko jàngul woon démb mënoo xëy xëy def ko koo séen mu di ko def rek xam ne xam mënoon na ko démb tey door a ñëw da koy tari waaye jàng ko ndax mbayum machine moo xam ne du ndiraat lu dul bay tiit day gàncax ku ko mënoon dong moo ca mën a delluwaat waaye bu fekkonte ni bii ku ko mënul woon la buy bay di ko di ko dagg kon alhamdulilah rabil alamina sant nanu bu baax gërëm nanu yal na yàlla dool leen sutura yal yàlla dool leen jàmm gaa yi daal jàmbaar lañu te yàlla dong nga tax ñuy def yàlla mi tax ñuy def yàlla leen yàlla fay du jaay si jiw sallallahu alayhi wa sallam déedéet sëriñ Cheikh Ndaw mais ba ma ñëwee ba léegi goppam bee mu yor delluwu ci ginnaaw waaye yaakaar naa ni bàyyi mu ndaw ku mu jur <laughs> kenn du la jàngal mbay ndax jamono bi nga xamante ni bàyyil faa ngi dund mbadeet gii ak cooti gii dañ daa dem bam set wicc daanaka bal ñu ko mas a woote rek tuuta ciy des bu nit ñi masaa ñëw dañ naat ah, sëñ bi de daa bëgg nu barkeel waaye fii dara nekkatu te booba bàyyi ma ko waraloon kon lee mu def tey eh, da koy tari de da koy tari waaye jàngu ko ak ñeneen ñu mel ni moom nag ci biir kon daal nu ngi gërëm nu ngi sant nu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla dool leen sutura yàlla yàlla dool leen jàmm damaa bëgg a jóg nag delluwaat ci waar wi waaw waaw ndax dallu naa jërëjëf <laughs> noonu la bàyyi bàyyi bàyyi eh, ñu ngi yaa ngi toog ak sëñ Abdou kon ñaareelu demam moom euh, mu taxaw cooti ba cooti jeex ànd na ko ñoom noonu la àndaatam tamit ñëw fii euh, nga xam ne mooy mbadet euh, taxawaay yi di yenn ñu jox la rek nga barkeelu ci kàddu yi bu ko defee ñu jóg nag yëkkati jataay bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëriñ Jàmme ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu sunu mag sunu soppe sunu xarit sëriñ Pape Seck Mourtada da nga koo laaj ci cooti mu am lum la tontu. xam naa moom lim la wax miinul cuuti waaye man ne ko judda moom xam naa ko dara cuuti eh, fa laa juddoo ñaaxa fa la juddoo màggat fa la juddoo Ibrahima bi toppan ci ñaax it fa la juddoo kon yaakaar naa ne fii mën mën nañ ko bu baax eh, boo demee fii ci kanam tuuti loolu bàyyi muuree ngi foofu la ko jot la ca tool bee itam mooy cooti lañ juddoo amoon fab tool daal fa ñëw fa ba mu fa ñëwee di bay comme ni sëñ cana bay def di bay tool bu mag te tool boobu sëñ Ibrahima joxoon ko ko mu ne ko Mori dama laa bëgg yóbbu ca mbaret dogal la fa nga ne bàyyi mag tool bii moo foofu jàkka ja nekk noone mu doon néegu bay Mori foofu moo doon kër ga fa la ñu juddoo fa la ñu defee lépp cooti joo cooti googu ngay wax sëñ Ibrahima Seck ñëw na dawal otoom ba ci biir ba ci at ba ca pénc ma mu woo Baye Ndiku Ndiaye woo Baye mu ndaw Male woo Baye Ibra Niass boobu ñoo ñoo nekk cooti boobu mën naa ngeen nekk ci toll ci parental waaw Baye Mbësu waaw mu ngoog waaw mooy Ndiku rek mu daal di may fab daani ana moori mu ne ko maa ngi nii mu ne ko Abdou mi dénk cuuti ci kanami seede kon nga waxu mag ñaare des nay bàyyi xel kon bu Baye Abdourahim demaatee sancaat cuuti mel na ni Abdou moomee ba tey moo fa nekk moo fa nekk waaw kon nag lii lii sëñ Pape Seck wax léegi moom rek mooy Canaba ndax fii eh, dëkku Amari Ndaak Seck la képp ku fi mas nekk rek yaay sëriñ Canaba te it sëñ Thiénaba bu wootee njabootu gépp dina ñëw kon fa tabaarakallaahu bañ fi ñëw maag sëñ Pape ci suba laa ne ko ah sëñ Pape day li ma gis nii xalaat naa ni boo waxee ñaari sentaan dina am waaye fi may wax yow nii sama xel dal na ndax gis naa ni fas yi son nañu waaye xam naa ni incha allah ba ñu fay jóge dina yegg ah, lépp nag ngir liggéeyal ah, seexu Thiénaba la rek ndax lii sëñ asme di def nga xamante ne tabaarakallaahu am na ñu naan waa sëñ asme leen man de xam naa ko bu baax ndax bay mut li bi mu daan bay tool bii sëñ asme da daan yor benn moo daan yor machine bi jël am naa naa ko am rajo bu mu daan takk sax ci ci ci baat bi di déglu rajo di di jàpp ci machine bi kon lee muy def man na ko bu baax xam na ko itam man a xam nag daa bokkul mën na ko xam na ko kon nit fa tabaarakallaahu ci suuba léegi nag waa cekkeen ñëpp ñëw nañ fi waaw sëñ Ibrahima ñëw na fi sëñ Baye Diop seen naa ko fi sànq Ah, tabaarakallaahu sëñ Pape a ngi nii xam naa keneen ku ñëwut it nekk ci yeneen rek waaye ñëpp suñu Pape mi ñëwee rek toogal na imam toogal chef de village toogal waa cekkeen yëpp waaw fa tabaarakallaahu kon kon nee na sëñ chef de village ñëw na kon daal sëñ Jàmme eh, li ñuy wax daal mooy gën a góorlu gën a ñaanal Baye Abdou yàlla may ko fan wu gudd ba yaakaar ji nga xamante ni moom la taalibe bi am ci moom yàlla bu mu yàkkee yaakaar ji ñëpp am ci Baye du yàlla bu mu yàqee ko ndax ab taalube ab sëriñ bu ñëwee la nga yaakaar ci moom mooy la mag ñi la fa mag ñi ne la doon def rek nga ne ca kon ci liit mag ñi bokk na ci misaal bi nga xamante ni moom la fi mag ñi nekk woon kon nañ ko ñaanal yàlla guddal fanam yéene ji nga xamante ni moom la am pour yeggale fa bu mu bëgg àgg cana ba yàlla na ko fa yàlla yeggale kon ñu ngi lay nuyu bu baax sa xalifa sëñ Pape Gueye wax dëgg yàlla moom it ñëw na fi euh, tabaarakallaahu Euh, sa sa rakk góora ñoom ñëpp ñoom ñëw nañu yaa ngi nii xale yi ñoom ñëpp ñëw nañu kon tabaarakallaahu suñu xel dal na suñu xel suñu xol suñu xol suñu xel dal na suñu xolit sedd na yal na yàlla yokk taxawaay yi na yàlla gën leen sàmm seen télé bi li ma ci daan ñaan rek mooy yàlla may leen euh, kattan goo xamante ni da ngeen am télé boo xamante ni dana mel ni bu tele bii Youssou Ndour lépp lu mën a xew ci àdduna bi rek ngeen mën koo jëlee ndax dimbali ngeen taalibe yi dimbali ngeen sëñ bi ni ko suñ papa waxee léegi tey jii fa tabaarakallaahu ñi nga xamante ni ñoo nga toog seen kër tey ji day danañ mel ni fekke nañ badet kon ñu ngi leen di ñaanal kattan ñaanal leen xaalis bu bari lool waaw maa ñaanal leen wér waaw ndax it lu ko dégg mu naa la sama doom ji daal li ma ci dama cee dama la koy jox rek eh, daal yor bu baax rek laa ci yaakaar yor bu baax boobu mu xaalis mënoo ko kon seen télé bii tamit xaalis rek moo ko mën a yor yal yàlla may leen kattan may leen eh, Euh, ba ngeen mën a yegg yeggale fa ngeen bëgg daal yéen ko xam yàlla yegg leen fa. asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf sëriñ euh, Abdou Rahim Seck bu bàyyi sëriñ Mori Seck euh, ci waxtaan bu am solo li nga xamee ne rek macha allah indi na ko kon mbokk yi ma fàttali leen rek ci biir kàddoom yéen a ngi dégg rek mu naan Pape Mor Gueye ñëw na di xalifa tafsir Mor Gueye seet na fi góor a saar waaye yow mi itam yaa ngi nii waaye loolu delloowaat mbir ma ca sof ba rek sof ba mooy na maam ya ànde woon démb Euh, ak barki démb ndax tey euh, tafsir euh, Mam Mor Talla Seck ku ko wax sa xel dina dem ci tafsir Mor Guèye ci ànd bu rafet ba ñu àndoon waaye ginnaaw ba mu fi jógee tamit Baye taal Guèye na mu nekkee woon ci wetu Serigne Ibrahima Seck Serigne Ibrahima jóge fi mu nekk ci wetu Baye Serigne Alpha Mamoud Seck ak noonu mu àndoon nag Baye Serigne Modou Ly ak ba yàlla def mu jeexal mission dem keneen ku fi ñëw tamit njabootam noonu la ñuy taxawee sa wet ndax noonu la demee noonu lañ xam nit mook mënut lu dul tëbinu baayam Euh, mënul nekk kon loolu rek la ñuy leeral ci loolu euh, macha allah dañuy daal nag def tuuti benn transition euh, jël micro bi jox ko Pape Abdoulaye Mboup mu àggaleel ñu lenn ci liggéey bi ndax ñoo ko bokk bu ko defee bu ñu paree tëj rek tàllal loxo yi kilifa yi ñu ñaanal ñu lu ñu ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi noonu gars yi ngi fii ci ak thiénaba tv point com mbokk yi li ñu leen waxoon rek jàmbaar ji nga xamante ne si. am na loo xam ne moom Abdoulaye Mboub moo ko fekkee gars yi day dem nañ cooti jeexal ko tàkk ñëw ma det dem ci waxtu wii wala boog ci ngoon la toog ci kanam waajuram ni taalibe yi maa ngi jël engagement fii sama kanamu waajur mani ku xëy ku yeex rek tool ba doo fekk dara 10 heures wala lu teg ñu woote ni cooti jeex na ba songu ma det sëñ Yaas ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax di la jox su wàccuwaay. ñëpp xam nañ ni démb parce que loolu nag dañ koy répété di ko répété waat ci sa kanam waajur da ngaa engagement ni ko xef doo fekk dara sëñ bi loolu yooyu engagement ak boobu xaal ngay jël lool lu ko def lu ko waral. xam nga Pape soo toogee nitu yàlla soo waxee dara sax su naree am deng-deng sax nitu yàlla gi dina ko bi ma toog sama waajur Pape Abdourahim Seck ma gis kanam gi mu bëllee ci sopp gum ñu ak bëggum bëgg moo tax Pape ma engagé nii yéex suba doo fekk dara boobu yëg naa xam ne ma jàkkaloo ak moom xam ne damaa mel ku jàkkaloo sama maam am na yàlla xam na ko. wàccuwaay ba joxoon bàyyi sama tijaan moom laa koy jox wàccuwaay ma joxoon sama bàyyi usunu xaar moom laa koy jox wàccuwaay ma joxoon sama bàyyi Mouhamadou Lu Seck bàyyi sunu xujja moom laa ko jox yàlla xam ne ko si Ibrahima Seck Mamadou Talla Seck loolu ma fekk wuñ ko waaye ñu ne fekk ma sëñ Alpha Mamadou sëriñ Mouhamadou Lu Seck ba Ousseynou Khoudia ba Ousseynou Xaar ba Cheikh Ahmed Tidiane ba ci moom mi nga xam ne fa tabarakallah mooy borom amul sikk mooy mooy mooy Baab Daraam Seck yàlla yàlla fayal na ko tey nag mu woote tey euh, ni daa bëgg taalibe yi ñëw gis nga pap ñaq yu ñaq nii ñaq wi yàlla du ko nii neenal mukk te loolu tuyaaba la joo xam ne moom moom moom moom ci boppam buñ ko fàggul su ko neexoon am na njaboot am nay fas ñu bayal ko waaye dafa bëgg taalibe yi ëllëg ñu mucc moo tax mu woote bis bii man daal pap maa ngi fi ba ngoon tuuti jeex na mbari dina jeex bu yàlla. am na loo xam ne dañ ko ànd ak yow mos nañu woote jumaa ja fële ca Canaba mais am na sax góor goo xam ne su ma jurum Baye Moussa Seck ñoo fekk la ci kaw safo bi ngay nga yor sa turel dafa jooy kon li ma bëgg wax mooy yow daanaka ndig loo digle tey yaa ngi nii jàpp machine mënoon ngaa toog ci keer gi tey su boobaa taalibe yi wër la te sax gis la gis la rek fa tabaraka la day dañuy dañuy am mbégte mais lu waral saa boo wootee la ngay wootee yow yaa ciy jiitu. Ah, xam nga Pape soo toogoon ci kër ga tey dina am ñoo xam ne dañuy ñëw waaye bu ñu la gisee ngay ñàkk dina am yoo xam ne dinañ dinañ dem sa toog man moo tax ma teg ci tool bi téye machine te incha allah bala ma ko bàyyi tool bi daa jeex kon pap man am naa ci tool bi yëg-yëg boo xam ne mhm. yàlla bu ko yàlla wàññi mukk yàlla bu mu nax saay mukk te bir naa incha allah ku fi ñàkk wala pap da ko rëccu mhm. ku gis mbooloo mi toll nii xool fas yi ni mu toll nga xam ne rek euh, liggéey rek mu am solo mhm. jaamu sa borom rek mu am solo te ba Abdourahim Seck lii su jaamu yàlla jubalul sama borom mënut am lu mel nii waaye jaamu yàlla jóg sama borom moo tax mu am tey lu mel nii kon ñaa ngi sàkku ci ñaxe ñoom may dégg nañ nangoo jaamu yàlla te topp mag ñi dégg ndigal mag ñi bàyyi tere mag daaneel yow yaa leen wax Thiénaba TV Saawan Baawaan. Saawan Baawaan te maa la ko wax incha allah dina yokk te maa leen ko wax. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf kooku mooy Serigne Seck borom digal a tabaarakallaahu moo ne woon euh, seen réseau <laughs> Thiénaba TV point com Saawan Baawaan. mi ngi noonu dañ leen di toppal rek incha allah tool baa ngi noonu mbadata ngi noonu cooti jeex na fa tabaarakalla song nan ba det yi lii mooy pas-pas Seexu Canaba yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko barke yonente bi salaay salaam muy bàyyi sëriñ Abdourahim kon ñu jël la ñeneen témoignage ànd ak sunu cameraman du jour Alaaji Talla Sall waa ba tey euh, ñu ngi euh, ànd ak Thiénaba TV comme la télévision de Mame Ahmed Ndack Seck ñu ngi fii ci euh, Mbadet tabarakallah maa ngi bàyyi xel na nit ñëpp ni cooti la ñu jëkke nag waaye dafa jeex moo tax ñu ñëw Mbadet lii nag li boo gisee ma koy fàttali la répétition est pédagogique pas-pas lay wane ni taalibe yi tey ko gën a am Seexu Thiénaba rek moo leen ñor alaaji Cheikh Ndaw salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum tey ñëw nga fii ci toolu Seexu Thiénaba yi luy sa yëg-yëg waaw Baay defe naa fii ci Thiénaba fii moom di cooti ak Mbadet am kenn ku fi toog am yëg-yëg rek man jàpp naa sax man maa la yëg-yëg macha allah ndax euh, fii cooti man fi laa gën a àddina li ko waral it mooy suñu suñu wayjur mboolem njaboot gi mu am ca mag ma ñëpp ci cooti gii la ñu gane àddina te loolu lépp moo nekk soldaar maam Cheikh Thiénaba macha allah sëñ Ibrahima Seck ànd ak moom juróom-ñaari at te sëñ Ibrahima gërëm ko macha allah ni ko fa ngërëm tàmbale fa ngërëm yem falaa tàmbale di la gërëm ba faw jugee fi baal Mamadou moom diiru baal fa di ànd ak moom baal fa dem na ba ni ko su ma la mënoon a tëgg ñeent baay bi yóbbu benn ba cooti benn ba mbarit benn ba gusaas benn ba fulum dinaa ko def ni ko Moodu mu ni ko sekk mun ko sud woon ak tubay julli ñaaw macha allah teewaay boobu nag ñun moom la lañuy moom mooy suñu teewaay fii rek kii nga xam ni fa tabarakallahu moo fi nekk euh, waaye ma njiitu ci ki fi jóge bët ki dem di Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck ñu koy jooy macha allah yal na yàlla yeesal yërmandem euh, bu yàggu rek sama wajur dafa ñëw fii ànd ak Baye Khalifa Sarr macha allah Eh, mu baaxale fa ni ko ndax mën nañoo dellu mu ne ko damaa sasu woon ni dinaa fi def juróom-ñaari tar ca boobu dajale la ca boobu mënul dara waaye nag jom ja ba léegi macha allah moo fa nekk bëgg seexu cere moo fi nekk looloo tax rek ñu ñu ñëw ñu nit macha allah ndax nag la mu bëgg rek la ñu bëgg te muy faju aajo ca am na moo fi suñu teewaay laaj Pambu. soxna Tidiane lan nga wax ndaw yi nga xam a yokk la bu seexu cere ba wootee loolu leen di gën a digal. waaw El Hadj eh, dañuy ñaanal suñu soppe Serigne Abdou Karim Seck day wax ni jihaad ji macha allah tarbiya Thiénaba eh, ñoo ngi ko mag ñaa ngi ko defoon ci jihaad ji macha allah bi ñu demee ba jihaad ji jeex ñoo ngi ko def ci tooli àllarba yi mu ni da nga daan gis mbadet nit di bay ba ci yàgg rek mu fi tax yuux macha allah eh, jël nañ ci génn góor mu yuux ni leer gaa nga mbadet loola nag lam muy tekki macha allah eh, mooy fajuk aju dong lañ fi sàkku kon nag ñun ñi loolu moo ñu fi kon bépp ndaw loo xam ne rek macha allah bëgg nga mbaax bëgg faju ajo te defe naa ab jullit moom fajuk aajo dong lay wut macha allah kon kon li ma li ma li yëg ca gëm ko mooy waxuma la ndegam mag ñee fi mag ñi nga xam ne ñoom ba ñuy bay boobu ñun ganeeguñ jamono ba léegi soo xoolee ci tool bi macha allah ruppeeguñ seenum gopp taxawaay yooyu rek macha allah la ñu gis ni loolu moo war a nekk ci ci ndaw ñi macha allah ñu gën am pas-pas ndax fa mag ñi àggoon fa loolu rek lañ ci gis baba baab lañ jërëjëf Cheikh ndaw macha allah xam ni fa tabarakallah ah ko wax moom Mounda wax cooti kon tabar gi nga Cheikh moom nee na cooti la juddoo kon kii. ñu ñu amaat beneen mbégte boo xam ni suñu woyjur yi nga xam ni moom la yàlla teg tey ci kanamu njaboot muy Baye Serigne Abdourahim Seck mook suñu woyjur genn jëmm lañu ku nekk fanaan nañ ba ku nekk yenn nañ macha allah ba léegi lépp di rafet macha allah suñu woyjur la dañ koy ñaanal mboolem seexu canam ba mu mës a jaar gudd fan man waaye bu li mu li mu taxu seen yàlla na réalisé lu ko ëpp ci barke Cheikh ñoo bokk macha na wax li nga xam wàññiwul dara di ñaanal rek wax na dëgg Baye Cheikh Ahmed Tidiane borom alquran sunu jàmbaar jooju nga xam ni wax dëgg yàlla fekk na tarixa bi ci fokkaay waaye nag yëkkatiwaan na ko ba mu gën a kawe Baye Abdou yàlla na ko gën kawe kawel ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cissé wala El Hadj Modou Maliou Cissé maa ngi lay jaar bu baax ah, yaa ngi ca yaa ngi jàkkaarloog Thiénaba TV point com télévision Mame Omar Ndak tey nag fa tabaarakallaa benn actualité rek la seexu Thiénaba Baye Sëñ Abdourahim nekk juróom-ñetteelu xalifa Mame Omar Ndak waaye nag may wax ni ñaari leer lay doxee mooy setu sëtu Seydina Limaamu Mahdi la waaye sëtu Mame Omar Ndak la te yow defe naa ni Mahdi yi nga tudd kon tey yaakaar naa ni sawaroon nga ci dem ci toolu seexu Thiénaba waaye nag tey la raw luy sa yëg-yëg ak sa sentiment asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu El Hadj Pape Abdoulaye Mboup nga dellu ay yoon si barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla nañu ànd. amiin yaa rabbi ñoo ngi nuyu téléspectateur u Thiénaba TV yëpp rek. Eh, di wax rek ni ñoo ngi ñaanal Baye Cheikh Ahmed Tidiane comme ni ko Cheikh Ahmed Tidiane dafay yërmande ak njëggal ak ñam fa fekk ñëpp ak ñako fa fekk. di ñaanal Baye Abdourahim Baye Abdourahim yàlla sàmm ko sa taxawu ko mu ànd ak fanu gudd ak wér. tey Pape eh, comme ni ko Cheikh Ahmed Tidiane kenn ku ñëw rek. da ngay jéem a mottali kóllëre wala ngay jéem a roy say waajur ñun amuñu doxalin wu bees ndax xamuñu ko waaw damay wax ni ngëm ñett la fi nga doondoo gëm fi la gëmloo bàyyil xajitaa la koy wax bokk nee na ngëm ñett la fi nga doondoo gëm fi la gëmloo ak bi nga xamee ba xamee fa la doy gëm ko mooy fi nga doondoo gëm mooy dangaa juddu fekk sa yaay sa baay doon loola da nga ko doon nga ngay ay tuut tànk ñu la koy joxoñ kon dan la ko gëmloo waaye bi nga demee ba xam ba xamee ba ràññee dit tànn nga tànn ñun nag ñett yëpp fi lañ dale fi doon doonoo gëm fi la ñu gëmloo waaye fii moo ñu doy ñu gëm ko ñu gis suñuy waajur nekkoon sa waaroo nag te bi nu demee ba eh, mag ñëw màgget ñëw ñoom rëcc wunu lan doon dagal seexu cana ba te it yëg na ni dabagun leen du si mbaax du si wilaaye du si tedd du si dara kon nag fa say waajur jaar te nga bëgg a mel ni ñoom te mënoo leen a dab kon jërul wut waneen yoon awal foofa rek loolu doo ñu indi tey yëg ni nag la waajur yi amoon fii leen ko amee nii leen ko amee woon te ñu bëgg am loola bëgguñu ñu raw ñu te bëgguñu ñoo jéppi te pap tey bu bàyyi Ousseynou Mbuub dekkee woon nga ne ko maa ngi tool yi Seex Canaba day bëgg bàyyi laaj taal bi ma ne ko maa ngi ñëw day bëgg Seex Seex bi ne papam day bëgg kon ñoom mbégte dong waxuma ne li ngay ame tuyaaba bi de waaye def lu neex sa waajur yi ngay def rek jaroon na ñëw fi pap waaw te it lii rek may ndam bi himmatin wa azimatin xad naalu man naw la dal rasulullah te li ma gën a neex tey pap mooy ñi nekk si sant yi di wax yëpp ak way ak waare tey di wan nit ñi kër gi tey bi seexu cana ba wootee ñoo ñangi si da tool yi tey waaw ñoo ngi sol blouson tey di wane ni ngay yëg ni kon xëy tool bi yaatu na waaye fu seex ca kanam ba woote rek ñoo nga fa Pape. ma ci du dama cee bokk nag maa ngi jaajëfal nabiyen yëpp mm. El Hadj Pape Morgue gis nañu ko gis nga Cheikh Ahmed Ndaw mi ngi nii Mamadou Madou Cissé Pape Abdoulaye Mboub ñoom alxaaji tam ñoom ñëpp a ngi fi ah loolu nag li muy wane rek mooy ñun kër gi rek moo ñu ñor yalla yàlla fay leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa mm. question mujj bi rek mooy fan yi dama doon xalaat tàngoor bi mm. mais gis nga xoolal sutura bi ñu yàlla defal Pape yàlla dimbali ab jàmm te nag si la si par keroog bi maam Ahmadou Ndak ruppee ay womam jàkkaarloog Seexu Amadou ay womam dootul wàcc mukk waaye képp ku bëgg a yëkkati ko di nga ko wàcc ngir moom waaye nag taala tey suba dani ma ku bëgg a am ngërëmul yàlla xam nga nooy def jamono ma ko déedéet da ngay fekk ku yàlla gërëm nga ñaqal ko bu ko neexee mu fay la bu ko naqaree yàlla fay la ni ma Mamadou man ko siise mu ne yàlla buy fay du laaj ndax bi ñëpp jëf mi nga xool xam na kay jéem a kay tappale waaw kon tey fii lu fi waaye ñaq rek yàlla indi ñu nag tey tàngul ba kenn di mar tàngul ba kenn di ñaq cooti gaaw jeex nga det gaaw jeex Pape xëyee cooti gont nga det bëriwul lu muy am nag kon jaaraama jaaraama jërëjëf maam Ahmadou Ndak waaye du ñun de coonoom ya moo ñu yombalal li tey jërëjëf maam Ahmadou Ndak tabarakallah incha allah euh, xëyee cooti gontoom ba det Pape Abdoulaye moom moo leen ko dig dina ci indi daaj bu neex ci kàttanu yàlla mu ngi noonu <laughs> ba tey ñu ngi jël euh, jàmbaar yi ci tool bi kenn ngi nii nag koo xam nii borom yaaram damay wax ni sëñ Ibrahima Seck ak bari tur ndax da nga naan borom yaaram borom Sidi borom gaynde borom naas borom ku yab naar njëgg ba nga dajal borom lawtan borom rëbb borom tamay àll borom bàyyi neex waaye moom borom yaaram moo jël tur wa muy borom yaaram asalaamaaleykum borom yaaram. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Alhaaj Ba Abdoulaye Mboup lay fay nuyoo di la ziara waaye di jël suñu nuyoo rek comme ko comme ni nga nuyoo rek ah, di nuyu mboolem ñi nga xamante ni yàlla sama borom dajal leen si biir tool bi. waaye nuyoom na duñ si jiital kenn ku xalif général Baye Cheikh Baye Abdourahim Seck yan yàlla sax borom wéral ko te guddal aw fanam waaye di ñaanal suñu jàmbar Baye Cheikh Matidiane Seck borom alxuraan mm-hmm. ndax yaakaar naa ne waxtu wi daaw mm-hmm. Euh, bi ñu nekk fii ñoo moom ñoo fi nekkoon alaaj ba macha allah mi ngi noonu macha allah moom dama koy dama lay dugal directement au bii borom àdduna bi yëpp nee nañ sa xërte ak sa ndof ci Seexu Canaba amoo ci limite defe naa ku la xamoon ci wetu Baye Cheikh ñëpp xamoon nañ jàmbaar ga teggiwoo sa benn loolu ban lu la may loolu wallaay ndeysaan alaaj ba am ñu ngi lay ziar baax macha allah waaw dëgg la ndax it euh, ñun bu ñuy jëf bu ñuy jëfal Seexu Canaba bu dee Baye Cheikh jëfalul woon Baye Cheikh ndax jëmam ndax jëmi Baye Cheikh déedéet Seydi Mujahid ma la jël moom Ahmadou Ndaw waaye Cheikh mission mat na ba dem ki fi yàlla teg tey muy ba Abdourahim Seck kooku mooy maam Ahmadou Ndaw moom la koy xoolee ñun lépp lu ñuy defar Seexu Canaba rek foofu la ñuy déparé sa baas ba base ba na mooy kan Seydi Mujahid maam Ahmadou Ndaw lépp lu ñuy defal doomu aadama rek ci kër Seexu Canaba jàppal ne jëmm jooju moo tax ñu ko def waaye nag alhamdulilah dinaa euh, naan nit euh, dinañ ko dàkkante mbir sax waaye nit dégg ko rus baa ñu tuddee ko mbir nit dégg ah tuuti dañ ko tuddee ndax bëgguloon waaye yooyoo ko waaye Baye Abdourahim Seck mii alhamdulilah fi mu ñëwee fii la baaxee ndax ndax raxiim ji dañ ko yàkkamti woon nag alhamdulilah waaye yërmande ji maasal muy borom yërmande nag waaye nag di borom cër ndax am na loo xam sans borom bu la mayul cër rek doo ko attan ndax day diis waaye bi mu toogee acte bi mu jëkk def rek dafa dimbali jaamu yàlla lépp mboolem ku bokk si kër Seexu Canaba rek Baye Abdou dafa laa dimbali sa tàkk saanam nga woon na koy mbay waaye man la ma waxoon rek nee naa leen tàggu saan gi moom hmm. dellu loon baat sa ndab la rek maamam da ko defaloon maamam te waxtoo mu ko defaloon lu waxtoo la ko defalaat euh, xalifaam macha allah mi ngi noonu hasard amul kon borom yaaram moom lañ doon ay interviewé nga xam ni moom it wax dëgg yàlla l'infatigable waaw lu des alaaji am na lu des euh, man yaakaar naa ne huit heures si tool la ma muy lu yéeme nag hmm. xam lu du huit heures ma ñëw moom xam nga lu ma yéeme lu ma yéem maanaam man damaa jàppoon ni man damaa teel a ñëw ndekki man damaa naaje. waaw xam nga dama naaje. waaw sëñ Ibra Seck xalifa baay Alxaaj Baye Serigne Talla Xaar Seck. bi ma ko fekkee ci tool mu takk ndigam man dama damaa ruus man. man damaa ruus. ma ruus ma ne ah, man mi ndeke man saa yi damaa naaje. ma gestu gis sëñ Pape Seck Moutada gestu gis euh, sëñ Abdourahim bu Baye Serigne Mori maanaam déet ma ñëw fi fekk sëñ ñaana sëñ Baye Diop Seck agsi alfa Baye Talla Xaar ma gestu seen ko alfa moom koy laa fekk moom cooti laa fekk. waaye lu ak lu lépp alaaj pap xam nga si gën a yéeme man daanaa fekkee ñuy woote tool bu tool tool kër sëñ Thiénaba ñu xëy ca gont ca ba ngoon sëñ bi ñaanu ñu ñibbi waaye gont si tool cooti xëye cooti gontoo ba wax dëgg yàlla xam naa nag samay at bariwul waaye mosuma mosuma ko gis na moom xam nga loolu ko waral mooy bëgg gi nit ñi bëgg Thiénaba waaye bëgg gi nit ñi bëgg maam Ahmadou Ndaw waaye bëgg gi nit ñi bëgg Baye Abdourahim Seck lépp na moom la dëgg la yàlla yàlla yàggal ko jërëjëf amin yaa rabbil alamin jazakallahu xayran borom yaaram moo doon dem témoignage kon ñu jëlaat témoignage yi ba léegi ah, mbokk yi ñu ngi delluwaat euh, jaajëfal la Pape Abdoulaye Mboup ci waxtaanu am solo woowu nga def ak ñi nga ko seqal euh, tey nag ñu toog euh, ci wetu chef de village alsaan Alassane Niane Seck di chef de village bu Thiénaba macha allah moom tamit ñu fekk ko rek mu toog toog ak njabootam macha allah nekk ci tool yi nga xamee ni mooy toolu maam Ahmadou muy Mbadet wax nañ leen ko cooti la ñu njëkkee Euh, ñu am ci ay taxawaay yu am solo liggéey fa liggéey boo xam ni liggéey bu am solo la ñëw nag wàcceewaat fii nga xamee ni moom mooy euh, Mbadet euh, Baye Niang da lay jox nga nuyoo fàttali ñu tuuti nag ci histoire ci Mbadet ak cuuti ak mag ñi nañ lañ taxaw woon bu ko defee mu nekk ab bind boo xam ni dañ koy baaxee ñiy seetaan. waaw xanaa di wax alhamdulilah di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp di masawu ñëpp itam di ñaan yàlla. lépp mu fi ñàq mu fi waay tool rek yal na yàlla def ko ni barke ak ndimbal ak sutur di sant mboolem koo xëy teew na fi tey ci tool bi muy toolu alal ba seexu caram dafay naka jëkk itam nii la daan demee suñu jëlee rappel ci lii passé rek yàggul dara sunu waajur bu baax bi fi jóge bàyyi si amatiya rahmatullah alayhi moom lañ fi mujjee nekkal ndeysaan ak moom léeg la ñu déplacé chaise bi léeg la ñu déplacé basang yi léeg la mu ñëw taxaw ci biir oto bi nit ñi song ñuy nuyoo moo doon fierté bu rëy mu doon ko bëgg tool di ko bëgg mbay di ko bëgg waaw góor nag ndeysaan di nemmeeku ñëppit nag ba ñëpp itam am na ñoo xëy sax daanaka demoon nañ ba fàtte dem àllal ba waaye jamonoy Baye Cheikh la ñu jaajuwaat ci ñëw tool ndax xam ni Baye Cheikh ku bëgg tool la ku bëgg mbay la ko mën a nemmeeku nit ñi la ñu àndoon ak moom di ko def nag ndeysaan ba yàlla jële ko fi te yàlla yàlla doon leeram yàlla seral tolluwaayam yàlla yaatal ba saxam liñ fi daan bay itam daa téye woon diine ji rek ak tool alal bi waaye du lu mu doon jariñoo te eh, tey rahmatullah alayhi yal na yàlla doon leeram tey suñu waajur sëñ Abdourahim yore ko ay teyoo beesal loolu nga xam ne moom la mag ñi daan def muy woote toolu alal ba toolu alal ba nag dañ daan wax ni eh, ab sëriñ moomu ko ko moom ab sëriñ moomu ko ab taalibee ko moom ndax mag ñi dañ ko daan woote pour defare fa defaroo fa waaye defare fa nit ñëw tuur fa seenu ñaq ni ñëw tuur fa seen doole ni ñëw passé fa seen temps ndax dañ naa wax na ban na lu nit di wut mu tëkku su demee ba ñaari ñetti àllarba wala ba weer wi dee yàlla dina ko ko may moo tax mag ñi sax ku ma saan dem àllarba doo doo sangut àggoo sa kër ñàkk woo sa kër nga koy sangoo ci ngir yàlla maa ngi wax rek polisan ñëwee ni maam góor gu mag dalal wax ni lépp lu ma tëj ci taalibi su ma ko yóbboo tóoti ñetti fan loola day yomb te loolu mooy wàllu yàlla rek bëgg yéeg ci yàlla mbaa ko bëgg a yéeg ci yonante bi mbaa ko am bakkaar mbaa ko bëgg a defar jikkoom mbaa ko bëgg a tër tërbiya mu xaw a jafe maam góor moom ne su ma ko yóbboo cooti rek la may def ci moom day yomb naka cooti nag naka mbalit moo taxoon mag ñi sababu toolu àllarba fa connaissance bi am ñee jóge Ngombel ñee jóge kër Njagasaar ñee jóge kër Ngañ ñee jóge Thiès ñee jóge Canaba Gaar ñee kër Arak ñee jóge Njóobeen ñee jóge euh, Mbayeen ñooy jógee fële aaneen ñëpp ñu day waa Mbodiène sax a ngi fi ñëpp day fi ngir yàlla ak jëmmal tool bi ak jëmmal seexu ca la nga nuyoowaat ak ñoo xëy giñ ngaa nuyoom ak ñoom xamante ko ak ñoom saafante boobu barke da ciy am tuyaaba da ciy am leer yi da ciy tàkk eh, mbalat nag bu jëkk ak cooti mag ñi maa ngi wax léegi ibraptan naa ko daqaar yi amoon na daqaaru baay Amadou Bamba Ñaan am daqaaru baay Serigne Ndiaye mag mu si musaan ñëw rek am na daqaar gooy tekki wàcc fa lal say basan bamba di bamba ñëw mos nañu woote fii àllarba àllarba ji jeexul daa tàllal basan yi ne bu kenn ñibbi fi la fanaan ne du ñibbi te tool bi jeexul comme ni moom ni ñu ko xamee woon lu musaan bay rek jox na ko Cheikh Thiénaba bàyyi ma di bamba ñëw musaan bay ba ba mbay mi bari ba tool bi ñor mu woo njaboot gi lu ngeen ci xalaat ku jëkk wax xalaat bu jox Cheikh Thiénaba mu ne ah yaa ñàkk xalaat lii dañ koy def addiyee Cheikh Thiénaba bu jàggee ba jàgg bëri mu jox Cheikh Thiénaba bu yoree fas moom rafet mu jox Seexu Canaba bu yoree am nag ba mu jox Seexu Canaba moom bay moom bay bàcc xolo ñoom ñaar ñoom meloon noonu ci tund bi lépp lu ñu bay rek Seexu ba lañ koy jox tubaarkaal ñooñu nag li ñu doon jënd ba tey mi ngi fi ah, li ma doon wax ci benn gàmm rek nii nii nii meew mi dogul wenn wi ñu ko daan nàmpe mi ngi fi maanaam tuyaaba ji ak diine ji ak barke bi ak leer gi du fi jóg mukk ba tey kenn ko ne nag selon sa pas-pas ak sa it ak sa ngëm moo la yóbbu ci dëgg moo tax ñun ñu ay militaire rek la ñu doon nag ku fi nekk général diine ji rek ñu ñëw def nañ daan def gunge la wetti la taxaw ci sa wet encouragé nit ñi man ma ñëwee rek damaa war ñëpp ni ku mënta béy ma ku mënta yéegin mën la bës ko daanu kenn ku taxaw sa wet ni la jaajëf ah jaajëf jooju sama bopp laa ko defal defal ma ko moom li muy def maam la koy defal waaye ñun li ñu def suñu bopp lañ koy defal di ñaanal ba Abdourahim nag mu yàgg fi baax mu yàgg koo gunge yàgg koo wéttali yàgg koo taxaw ci tool yi ñaanal sëriñ Jibril mi nga xëy ci mag ñi sët yi moo ci mag ak sëñ Asan ma ca ma ca ma ak sëriñ Ñaaxa ak ñu dese ci mag ñëpp sëñ Modou Rokhaya ak sëñ Xalifa Busaak sëñ imaam Mortada ba ci imaam sëñ Cheikh Abdou ñu jaajëfal ñëpp ndax ñooñu lañu dese ci ay mag lekk ñu nekk seen ginnaaw di leen jàppale ci diine jëg tarixa bi cana ba dëkk boo xam ne ni Baye Ndiamé boo déggoon ni daa am loo xam kenn du ko wax ci média waaye amul génn kilifa gu fi jaale si dul wax nga ci déy ni daal lépp kenn mënu ko wax waaye daal wax nga ni buñ jubee ca la ba daal ne noonu fii lañ fii ñu jëm daal yaakaar des na fa ci lislaam waaw lépp nag kenn mënu ko wax ci média waaye daal wax nañu wax yoo xam ne ni war nañu jaajuwaat taxawaat fonkaat diine ji fonkaat tariixa yi fonkaat mag ñi euh, valeur yi nga xam moom lañu mag ñi bàyyi ñu sàmmaat ko ba nga xam ne li ñu doon nawee dem ak tey loolu toujours ku ñëw rek fekk ko fi ñu ngi jaajëfal ñëpp nag dugub ji yàlla na àgg jàmm ko cere ngay ngelaw ñëpp man cee xew di jaajëfal nag Thiénaba TV ak Shamsu TV ndax itam ñoom tam ñu ngi bay waaru mag ci diina ji nag lépp lu xew rek ñu médiatiser ko ba nga xam ni fu taalibe aju ci Thiénaba te yaakaar Thiénaba ak diina ji ak tarixa bi fi Thiénaba toll ci jéego di nga ko xam fi sëñ Thiénaba tool ci jéego di nga ko xam waaye fi toll fi tool yi tool yi di nga ko xam kon fu taalibe na ci àdduna rek nga xam ne fii la tool yi toll ñu ngi bay ba xaw eh, ci bayaatub gerte lañ jógee ndax tam loola mag ñi daan def sëriñ Thiénaba moo fi gis muy bay tool tool ba lam ci am daanaka du la muy dunde waaye nag pour téye ko diine ji ak taalibe ak tarixa bi loolu mu bu mu ngi téye loolu toolu alal ba da cee bokk soo dee alal moom ab ko moom te bis alal ba ci lañ bind leer bis alal ba ci lañ dalal ab ndongo ndax baa sin mi mar boo gis muy dal bee baa sin mi mar ba lañ koy dalal bis alal ci lañ bind leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa min shay'in ilaa wax ak tàmm wa fii baraka nee na lépp lu ñu commencé bis àllarba dina mat dina àgg te dina am barke moo tax mag ñi daan woote àllarba ñëw gin fi ñëw nag yàlla na faju aaju ci noonu yàlla na ko yàlla dindi ku fi yi nga fi dox yàlla na faju aaju ci sa wéradi ku amagul xarum tabaski ñëw gi nga ñëw ci tool bi yàlla na yàlla yàlla na yombal sam alfaan yàlla na yombal sa alfaan te nga xéewloo ko jàmm ak salaam bëgg nañ bu baax a baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu wax yàgg naa leen ko wax moom sëñ Alsaan euh, moom ku jàkkaarloo moom des fois nga am laaj boo nii bu ma bu daaneelee sax ma laaj ko ko mais da koy tontuwaale euh, ci biir waxam ndax euh, li ñu jàngal tuuti ci journalisme yii moo fi am mooy comment quand pourquoi ñett yooyu rek moo am te yooyu yëpp bu ngeen déggee wax na leen ko mooy comment naka la ñuy ñëwee ci tool yi ak lan moo waral ñu ñëw ci tool yi mooy pourquoi bi ak quand mooy àllarba dégg nga ñëwaat na insisté waat ci ni àllarba lañ ko daan def euh, tey nag ñu woote dimanche waaye àllarba lañ ci wundu woon tamit leeral na ko euh, mu nekk lu am solo kon su nekk ñuy dajeek yow xam naa am naa yeneen laaj sax yoo xam ne bokkul ci tool yi waaye yooyu dama koy denc waaw ba ñëw kër ga ba waxtaan ba pare <laughs> mu nekk lu am solo euh, jaajëf ñu leen di kon du ñu def rek lu dul nag xool yëfi njaween yi xam naa sëriñ Alsaan nee na yëfi njaween yi ak yëfi ngéyeen yi man ma dindi ngéyeen yi teg fële daal di jël njaween yi njaween yi itam buñ jëlee micro wax lu leen neex euh, taala ñu dem xool euh, xéewal yi agsi na ñu xool nan lañ koy séddale leen yéen ñi ànd ak waa Thiénaba TV euh, boobu ba léegi waxoon nañ leen ko ñu ngi fii ci Mbadet kon ginnaaw bi nga xamee nii liggéey nañ fi liggéey bu am solo ci la nag xalif général Baye Sëriñ Abdou Rahim ci la agsee noonu ci mbooloo mi nag ñëw pour war leen ñaanal Euh, wàcce leen euh, macha allah ginnaaw bi nga xamee ni xéewlu nañ ko ba pare euh, kon Baye Serigne Abdou Reye mooy mooy mooy agsi noonu xalif généralu Thiénaba mooy dugg si noonu rek macha allah war a nag wàcce ñi nga xamee ni ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñi nga xam ni mooy jàmbaar yi maam Ahmadou ndaag yi doon liggéey ci tool maam Ahmadou Ndaak kon macha allah ci kanam tuuti rek incha allah bu ñu fi yëkkatee ay kàddu rek ñu bokk kàddu mbégte yi ak ñi nga xamee ni macha allah ñoom lañ ko bokkal. وعلى وكملو ينن أمن الإرساد إبادي وخلو ينتل ممدو حبيب بأسرار كل أبو منبو كل تدمتنا من الأسار ممدو كل من تسمى باسم سيد الأولين ينتل ممدو ulul birri wa taqwa yonen wa ulul fadaili Mamadou Lamine isaabat isfaaxi wa xeyrin wa naili yonent Yàlla Mamadou samad bi xabori aq min xayra qaili axar li ayaati loo wa dalaili Mamadou Lamine biya suqutal xulwa tarixun waato mooñun fu ni jëlee nekkete ku mel ni taaw Abdalaay Rasuulu alamiina yonent bi jar na way laqad xasama laahu siyaadata fil azal Mamadu Lamin li Ahmada wal ixsaana fil xawli wal amal jol ma kafa lillahi ma asta Mamadu Lamin mm-hmm. te yow kat walillahi ma basal شمال اليتامى والمساكين لم يزل كل مسوي كل دار مسلمين مسلمين سلام سمر لبا من لبا من لبا ينتهي الأمد لقد فاز من لبا ينن وتاف وساروا محمد لمن ومن رأى في ذاك تراب عساره جرمك وإن كنت لم نبلغي دياره محمد الأمين محمد رسول الله بحب رسول الله نرجى جواره القواي جبنا بك على كل فنان yonent yàlla Mamadu njal ma kalaas raxati duniyaa ya nen bi nuuri bayaani Mamadu Lamin alew fi ala ma faa tani miriyaani ya nen yu haddisu minu an ulumi janaani yonent yàlla Mamadu Muhammadu Rasulullaahi njal ma ka basiirun bi sirril حيث قبل الجهاني لو يعرب مرمى وترتفي الوجبان بعندنا سلام يا خنجا وتلقو لا ورحم الجبري ni sama àllar baa ngi nii Pape Mor Gueye tamit ñëwoon na fi ak ñoom sëñ Baye Diop Baye na tàngal ju bari moom laa wax ba sëñ Maodo mee naa ko na ko séddale ànd na ak jëmmam ñëw fi Alpha Mbaye taala xaar fi la yend otoom doon roñ nit ñi sóoba léegi ci sóoba léegi mu ngi fi waaw ñoom sëñ aada ñoom sëñ aas da dala koo tënkal noonu rek yónnee nañu ay teraanga sekk waaw sa daal kenn manqué wul tey sëñ Alsan mu ngi lay noo ngi ziar imaam Serigne Mourtada bu baax waaye noo koy jaajëfal ci taxawaay noo ngi jaajëfal suñu Asek borom ndigal Serigne Adama Serigne Ibrahima Seck Serigne Abdourahim Baye Mori mi nga xam mooy borom tool bi Serigne Mouhamad Seck Cooti Serigne Massamba Diop bu Faas moom it teew na ñoo ngi nuyu mi yëpp. waaye nu ngi ziyaare ñëpp. di jaajëfal ñëpp. di jaajëfal ñëpp. kàddu yi jaajëf rek la. kàddu la. commencement bi jaajëf la. commencement bi jaajëf la. digg bi jaajëf la. digg bi jaajëf la. mujj gi la. waaye mujj gi jaajëf la. waaye cant gi li ci jëkk. waaye cant gi li ci jëkk. mooy sant borom bi subhaanahu wa taala. mooy sant yàlla subhaanahu wa mi nga xam lu am rek moo ko dogal. mi nga xam ne am moo ko dogal. bu àggee moo ko àggale. ne su àggee moo àggale. bu rafetee moo ko rafetal. bu rafetee moo rafetal. kon ñu ngi sant yàlla bu baax noo ngi sant yàlla bu baax. di julli ci yant bi sallallahu alayhi wasallam. noo ngi julli ci sang Muhammad. di sant mag ñu nu fàggul lii. noo ngi sant mag ñu nu fàggul lii. la tàmbalee ca maam Amari Ndaak. ak mag ñi ko doon ñëpp. ak mag ñi ko doon ñëpp. nga xam ne ñoonu fàggul yiw wi. nga xam ne nu fàggul yiw wi. fàggul nu barke bi. fàggal nu barke bi. fàggul nu jumtuwaay bi. fàggul nu jumtuwaay bi. muy sunu defarug àdduna. sunu defarug àdduna. àggu àllaaxira. àggu àllaaxira. ñu ngi jaajëfal ñoo ngi jaajëfal mag ñooñu. di ci teg sunu ñoo ngi ciy teg sunu waajur baay sëñ Abdourahim. di ko jaajëfal bu baax. fekk noo ngi koy jaajëfal bu baax. ndax yiw yi nga nu fàggul. mën nu ko koo fay. mën nu la koo fay de. diggante bi mu toogee ak léegi. diggante bi nga toogee ak léegi. sunu waajur yi fi jógee. sunu waajur yi fi jógee. di bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane. di bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane. yàlla na yàlla dolli ay leeram. yàlla na yàlla seral tërluwaayam. yàlla na yàlla gën a seral tërluwaayam. am nañu moom ay yoon i yoon. ay yoon yoon. at yi mu fi toog yëpp. at yi mu fi toog tool bi. masul booyal tool bi. ànd nañu ak moom bay ko. ànd nañu ak ko. bay gerte. bay ko gerte. bay ko dugub. mu doon ku bëgg mbay nag. mu nekkoon nag ku bëgg mbay. ci am taxawaay lool. amoon ci taxawaay lool. ak yitte lool. ak yitte lool. bu ñu ñëwee ci waar wi. bu ñu nekkee ci waar wi. mu yor otoom ñëw di wëndeelu. mu yor otoom ñëw di wëndeelu. di nemmeeku nit ñi bu baax. di nemmeeku nit ñi bu baax. ba ñëpp mobilisé woon na. ñëpp mobilisé woon nañu. ndax ndax itteem. ndax itteem. ci bëgg mbay. ci bëgg mbay. bi muy génn àdduna. bi muy génn àdduna. daa dee teekum ceebo daanaka. daa tombeeg ceebo. Baye Abdou mënoon nañu xat na. Baye Abdou mënoon nañu xat na. mbay ren xaju fi ren daal mbay xaju fi. waaye fàggul nu waaye bëgg noo fàggul aw yiw. ak barke. ak bëgg noo fàggul barke. ak xam ne lii noo ko moom. ak xam ne lii noo ko moom. moo tax mu def ko. moo tax mu def ko. kon moo tax mu xaj xajal ko fi. moo tax Baye Abdou xaj xajal ko fi. kon Baye Abdou jaajëfal nañ la. Baye sëñ Abdourahim jërëjëf. fu waay jóge nag ci tund wi. fu waay jóge ci tund wi. moo xam aaneen la. moo xam aaneen la. Mbodjeen. Mbodjeen. Cenaba Gaar. Cenaba Gaar. Euh, kër Xolle. Kër Xolle. Ara. Kër Ara. Njóobeen. Njóobeen. Balta. dëkk yu nu wër yëpp. ne mboolem dëkk bu wër Canaba. séeréer yi. nga xam ni. nga xam ni. moom ñoo dara dalaloon sëñ Abdourahim. ñoo dalaloon sëñ Abdourahim. waaw sëñ as sëñ as daa bëgg ma tudd koy beral koy beral kër yi doon faal ndax oustaz a ngi nit ma jàkkaarloo euh, séeréer sooy bi ba Abdourahim dal si fii. ne séeréer yooyu may wax bi bàyyi Abdou dal fii. ba Abdou mos a jël at moom bayul bàyyi Abdou mosul jël at moom bayul njabootu maam góor gu mag njabootu maam góor gu mag ñi ci gën a bëgg mbay ñi ci gën a bëgg mbay dàq cee bay dàq cee bay ba Abdou ci la bokk bàyyi Abdou ci la bokk waaye ba mu fi ñëwee ba tey waaye ba mu fi ñëwee ba léegi ab toolam mos a booy toolam mos a booy ndax séréer soosu ndax séréer soosu ñoo ko jàppale ñoo ko jàppale ñoo ko taxaw ñoo ko taxaw ñoo ko wéttali kon am ngeen jaajëf kon nag am ngeen jaajëf sañ ngom ngomeen sañ ngomeen ba ca ngomeen ba ca ngomeen nga bàyyiwuñu kenn bàyyiwul sëñ Mbàkke Ngom sëñ baa ngi lay ràññee bu baax di la joxoñ. Kër Ibra Fall. bu Naafaar. waa Kër Ibra Fall. waa Kër Ibra Fall. sëñ baa ngi leen di sant. sëñ baa ngi leen di sant. boole koog sunu cant. boole koog sunu cant. ak cantuk sëñ yëpp lañ boole. cant yëpp lañ boole. ñoom at mu jot. ñoom at mu jot. boo wootee tool bi. soo wootee tool bi. ña ca man la ñuy bokk. ña man la ñuy bokk. seen xarum tabaski. seen xarum tabaski. ba ma dalee fàttaliku ba tey. ba may fàttaliku ba léegi. mosumaa gis sëñ canaba mu fi ñëw. mosumaa gis seexu canaba bu ñëw. te andi luñ ko xarum tabaski. te andi luñ ko xarum tabaski. kon nag Kajoor Faal seen jaajëf démb la. sëñ As loolu rek nga may fàttali. waa kër Njaga Saar. waa Bulfa. waa Bulfa. kër kër ngañ waa gàdd bàyyiwuñ benn dëkk kër yaaba nee soo limee da ngay desal waaye daal kenn desul sëriñ baa ngi leen di jaajëfal nit soo ko nee am nga jaajëf nit soo ko nee am nga jërëjëf te deful lu mat jaajëf te deful lu jar jaajëf day am kersa dafay am kersa waaye yéen bu leen sëriñ bi nee jaajëf waaye yéen bu leen sëriñ bi nee jërëjëf war ngeen a xam ne am ngeen jaajëf war ngeen a xam ne am ngeen jaajëf jaajëf ji nag ne jaajëf ji sëñ Murtada yi mii moo leen ko wax sëriñ Murtada imaam mii moo leen ko wax ak man mii ak man mii ak sëñ aada ak sëñ aada ak sëñ aas ndax nooy njabootam ndax nooy njabootam boo defee kilifam nit soo defee kilifam soo defalee kilifaam boo defalee kilifaam njaboot moo war a sant njaboot daa war a sant moo war gërëm moo war a gërëm moo war a ñaan moo war a ñaan wax naa président Macky Sall barki dem ni ko wax naa président Macky Sall ni ko nit ku fonk kilifaam. nit daal ku fonk kilifaam. bu ñàkkul fayda fonk. bu ñàkkul fayda fonk la. ku bëgg kilifaam. ku bëgg kilifaam. bu ñàkkul fayda bëgg ko. bu ñàkkul fayda bëgg la. ku dimbali kilifaam. ku dimbali kilifaam. war xool war na laa xool bët bu rëy. kon nit ñi xool nañ leen bët bu rëy. kon nit ñi xool nañ leen bët bu rëy. sëñ Masamba ba a ngi nii. sëñ Masamba Diop ngi. jóge ba Fass Kofé. jóge ba Fass Kofé ànd ak njabootam. Fass Kofé di dëkk boo xam ne. Fass Kofé di dëkk boo xam ne. seetaanuñu daray seexu canaba. seetaanuñu daray seexu canaba la la la gën a ndaw ba ca la gën a mag. la gën a ndaw ba ca la gën a tuuti. seen taxawaay da caa mat sëkk. seen taxawaay ci faas mat na. waaye ñun ñëpp nag. waaye ñun ñëpp. mën nañoo boolewaat suñuy cant. mën nañu boole suñuy cant. sant ko Baye Abdourahim. sant ko Baye Abdourahim. ndax àllarba. ndax àllarba. ab sëriñ moomu ko. ab taalibee ko moom. ab taalibee ko moom. àllarba. àllarba. da doon boo xam ne. naa nekk outil boo xam ne. dañ ko defoon. dañ ko fee def. ab da koo def. ab sëriñ da koo def. pour dimbali gaa yi nga xam ne. pour dimbali gaa yi nga xam ne. soo leen bëggee werduloo day yeex boo leen bëggee teg naafi la mu yeex boo leen bëggee joxeloo alal mu metti boo leen bëggee joxeloo alal mu metti eh, te maam sëñ Tuba sax maam Cheikh Ahmad Bamba sax maa ngi koy bëggale ñi aju ci moom ne maa ngi koy bëggale ñi aju ci moom te nekk fii daf ni Touba li habdil muridi saadihin lahumoo bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati yàlla kenn mënu ko am mbaa barke mbaa ak leer lu lul nag ci alal ju bari mbaa aw ñaq wu metti bàyyi Ousseynou Xaar daana wax ni nee ñett yii ñaq nee ñaq baa ñukku mbaa ñoqi nee noonu la ko bàyyi Ousseynou Xaar tënke woon àllarba ci la ñu bind leer ki ab taalibe leer lay wut leer mooy barke. leer mooy tuyaaba. leer mooy tuyaaba. leer mooy yóbbu nit ci yàlla. leeray tax a xam Sayyiduna Muhammad. moo tax àllarba. ci la ñu bind leer. moo tax mag ñi defoon ko. ngir dinu ci jàllale. kalaas gi xaw a naqadee jàllale. sëñ Ibrahima boo déggee gàmmam gu mujj. ba jàngal nu. mu ni mag ñi jàngal nanu ba jàngal nu. ñi nga xam nga xam ne seen pas-pas matul. nu ñuy def ba yóbbu leen ca dëgg-dëgg mbir ya. nu ñuy def ba yóbbu leen ca dëgg-dëgg mbir ya. loolu ci la bokk. am na beneen discours am. am na taalibe yoo xam ne. mu ni am na taalibe yoo xam ne. da ngeen naa leen carfal. dóor leen mboot. ñu naa fu nu jëmee. ba nga yóbbu leen ci àjjana ja. ñu ne ah fii daal la ñu loolu li koy def àllarba ci la bokk. ne àllarba ji daal noo ko moom ñun ñoo war a sant baay sëriñ bi génn li ci sunuy poos jox ko nit suñ ko fàggulee lu mënul fàggul boppam sàmm ko rekk ca des pas-pas ak jom nag Baay Alfa Mamadou wax na ci gàmmam gu mujj mu ni mag ñi lii ñu ñu fàggul buñ ko fàggul woon ba léegi suñu jom duñ ko may suñu temps duñ ko may suñu fit duñ ko may suñu wërsëg duñ ko may nit suñ ko fàggulee lu mënta fàggul boppam jomi sàmm koo ca des mooy seen pas-pas bii daxaar yi ci tool bi daxaar gu ne mag tippoo woon na ko am na goo xam ne maam Ahmadu Bamba ñang moo fa daan wàcc gii bàyyi sëriñ njeeri mu xàddami seexu canaba bay kenn ku ne am na foo daan dal Baye Amadou Bamba Niang am na ba joo xam ni tool bi daa des mu ne kenn du ñibbi fii la fanaan boole koog lu mos a béy Kër Njaga Saar seexu canaba la ko jox moom ak Baye bàcc xulle Baye Abdou ma gën a xam li may wax buñ bayee jaag ba mu rëy dañ koy jox addiyee seexu canaba buñ sembee ba mu mokk nu jox addiyee seexu canaba bu ñu solee gerte jox addiye seexu canaba suñ amee fas wu rafet jox addiye seexu canaba ñu amee nag wu rafet jox addiye seexu canaba ñu amee doom tudde seexu canaba mbaa njabootam su matee dem daara mu jébbal seexu canaba looloo fi nekkoon de loolu day wane ni yàlla du maye dara du maye dara lu baax lu mu doon da koy jënd ku jënd am bëgg leen a jàlle ak dimbali moo waral toolu àllarba xam gi ngeen ko xam nag yàlla nay seen faju xaajo kenn ku ne yéene bi nga faraanoo indaale ko fii innamal ahmaalu bi niyaati wa innamaa kulli kulli amrin maa nawaa mooy seen yéene ji kenn ko ne ba nga yéenee bay ñëw booba nga amoon tuyaabay àllarba nee na boo gisee boo jëfee teg ca loolu nag day complété jaajëfal nañu ñëpp sëñ As nu ngi lay jaajëfalaat nit bu xamee li ko war def ko kooku jërul jaajëfal ñu ni kookoo jër jaajëfal ñu bari xam nañu leen war defuñu ko kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax ku teew ak ku teewul nee ku teew nag yaa teewal ñëpp nag. àllarba yi bari na kum fekk nga xat yeneen i àllarbaa ngi ñëw waaye Baye Abdoulaye ñu ngi koy jaajëfal mag ñi daawuñu jël àllarba mag ñi daawuñu jël àllarba noor ak nawet ñenewuñ ko woon Baye Birama Ñang bu tool a jeex day jël ak baag bu yàqu takk ko ca puju néegam su àllarbaa mu làmb poosam daal di cay tàbbal ba weeru dee mu dem yët ko maam Momar Talla Seck góor gu mag am na ci ñoo xam ni bu tool yi jeexee su àllarba dañuy for sayu gi tax bu ñee ba tolloo wana wu mag booba dañ ko daan door door ñu jël ko fa ñii ay laat la ñuy wuti ñii ay xar ay xer la ñuy wuti ñii yar ginaar ba mat ñu def ko seen àllarba waaye xalaatuñu woon ko woon a jëlal noor ak nawet bàyyi siraja danaan yar ginaar ba mu matuk séq mu dajale àllarbaam def ko ci musuwaar takk ko ci tànk séq gi bu ñëwee ba tolloog wan ak kër gu mag fi maam góor gu mag daan jàppe fajar teel bu jullee daal di ko fay jël bu ci maam taala yemee ni kenn ku ne xàmmee na àllarbaam loola doon kër gi démb ne loolu bu dee noor bi yëpp douze mois yëpp duñ ko def te kenn duñ ko laaj bu newetee ah kenn waru noo soññ kon nu ngi jaajëfal ñëpp lépp lu fi waay def ku fi ñëw yàlla na sa fajo xaajo wér du gu waay indaale yàlla na ko yàlla saafara <coughs> nee lu fi waay indaale yàlla na ko yàlla saafara ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam jaajëfal nañ ñëpp nee kàddu yi nag dama doon ibbil sëñ Murtada rek tey jii kat sëñ Murtalaay jëwriñ ji ak sëñ Adama sëñ As ñoom sëñ Abdourahim ñoom jaa jaajëfal nañ ñëpp nee na lii nag yéen a ko moom ñun ñëpp dañuy ñaan rek yàlla bàyyi na fi ba kenn ko ne nu lay ñëwal alarba amin yàlla mën na ko. yal na ko yàlla jaa ngeen jëf kenn ku ne sëriñ bi ne yàlla gis na la kenn ku ne dañ laa bëggoon fekk fa nga toog kenn ku ne dañ laa bëggoon fekk fa nga toog nuyu la ziar la waaye jaajëfal la waaye yàlla gis na ñëpp samba aana ngi nii doomu Baye Mandela Aan nekkoon jàmbaari seexu canaba alxaaji Modou Diop ak alaaji Moor dañoo wéradi ca Ngombel waaye ñoo daan jiite tool bi ah sëñ Modou Diouf gàdd jàmbaari cooti sëñ Ousmane ko yar jaajëfal nañu ñëpp asalaamaaleykum. wa rahmatulah. ñaan a waxe comme ni ko bàyyi sëñ Alassane ñaan waxe ki war a woote woote na. ki war a woote woote na. bi nee na. kon daal bàyyi sëñ bi nee na. gannaaw bu sante yàlla. gannaaw bu mu sante yàlla. ñu ngi leen di ñaanal yàlla. ñu ngi leen di ñaanal yàlla. yal fay leen. yal na yàlla fay leen. ngeen ji fay. ngeen ji fay. ngi leen di wax ni. ñu ngi leen di wax ni. jasaakumullahu xayran. jasaakumullahu xayran. ku deful yiw kat. ku deful yiw kat. kenn du la wax loolu. kenn du la wax boobu baat. kon sëriñ bi nee na. kon daal sëriñ bi nee na. mi ngi leen di gërëm. mi ngi leen di gërëm. mi ngi leen di sant. mi ngi leen di sant. mi ngi leen di ñaanal yàlla. mi leen di ñaanal yàlla. kenn ku ne sa tànki dikk. kenn ku sa tànki dik yal nay faruk bàkkaar yal nay sa sa tànki dellu sa nay fajug aajo yal nay fajug aajo saahiran wa baatinan saahiran wa baatinan bi jaay nabil muxtaar bi jaay nabil sëriñ bi nee na sëriñ bi nee na gis na waa kër cheikhul xadim gis na waa kër cheikhul xadim ndax Serigne Mbacke Ngom a ngi nii toog Serigne Mbacke Ngom nii. ak ñeneen. ak ñeneen. gis na it waa kër maam El malik Malick. gis na waa kër Cheikh Sidi Hadj Malick. ndax waa Daaru ñu waa waa kër El Hadj Abdou Dieye. waa kër El Hadj Abdou Dieye. muy Demmoje. muy Demmoje. ñëw nañu. ñëw nañu. ñëwin wu rafet. ñëwin wu rafet. te tey jii. te tey jii. woon la woon seen toolu àllarba. la woon seen toolu àllarba. waaye dañ ko faa bàyyi. waaye dañ ko faa bàyyi. wuy si bàyyi Cheikhou Thiénaba. wuy si bàyyi Cheikhou Thiénaba. nee mi ngi leen di gërëm. nee mi ngi leen di gërëm. yàlla mi tax ngeen def ko. tax ngeen di ko def. moom de amul fay. moom de amul fay. waaye yàlla miy fay. waaye yàlla miy fay. yal na leen fay seen jëf ju rafet. yal na leen yàlla fay seen jëf ju rafet. gis na waa aneen. gis na waa aneen. gis na ñëpp. gis na ñëpp. waa kër Cheikhul Khadim. waa kër Cheikhul Khadim. waa kër maam El Hadj Malick. waa kër maam El Hadj Malick. waa kër Cheikh Sadbu. waa kër Cheikh Sadbu. ak ñeneen. ak ñeneen. ñoo xam ni. ñoo xam ni jàpp ñu sax ci tariixa. jàpp ñu sax tariixa. bis ni tey. bis ni tey. gis na leen. gis na leen. kon gërëm na ñëpp. kon bàyyi sëñ bi gërëm na ñëpp. kon daal ñëpp ko wuy. sëriñ bi daal ñëpp ko wuy. gërëm na ñëpp. gërëm na ñëpp. sant na ñëpp. ñëpp. sant na ñëpp. waaye nag. waaye nag. dañoo wax ni bal boo xam ne soo ko dóoree fi barab day dellu si ci yow. dañoo wax ni boo xam ne boo ko dóoree ci barab day dellu si ci yow. na nga fexe ba muy bal bu woyof. na nga fexe ba muy bal bu woyof. su fekkee du balu yiw. bu dee du balu yiw. yiw nag. bu dee balu yiw nag. lu mu rëy na nga ko xeeb. lu mu rëy xeebal. lii ñu ko defal tey. lii ñu ko defal tey. ca garab gële. ca garab gële. bàyyi seex woote na àllarbay ndéqi. bàyyi seex woote na àllarbay bay ba nu ndéqi àllarbay ndéqi. ba nu yendoo. ba ñu yendoo. ba takku saani suuf. ba takku saani suuf. cinq heures jëm six heures. cinq heures jëm six door a añ. la ñuy soog a añ. bi ñu wàccee mbooloo mi. bi ñu wàccee mbooloo mi. nit ñi ko sëñ Abdou. ni ko sëñ Abdou. mbooloo wàcceel mbooloo mi. sama kanam. ci sama fekke naa loolu. fekke naa loolu. kon nag. kon nag kuy leble. kuy lu baax. lebleel lu baax. loo xam suñ la ko fayee. loo xam ne buñ la ko fayee. mu am njëriñ. mu am njëriñ. lii de. lii de lebal na ko kilifaam. lebal na ko kilifaam. muy Baye Cheikh Tidiane Seck. muy Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck. di sëriñam. di sëriñam. di magam. di magam. di xaritam. di xaritam. yal na ko yàlla dolli leer. yal na yàlla dolli fàttali ko lee fa mu tëdd ca barsax fa mu tëdd ca barsax yal na yàlla yokki leeram yal na yàlla yokki leeram bi jaay Muhammad wa sallam bi jaay Muhammad sallallahu wa sallam waaye lii mu leble moom lañ koy fay nii moom rek lañ koy fay yal na lii yàgg nag yal na lii yàgg yal na yàgg yal na yàgg yal na yàgg yal na yàgg na gën a rafet yal a rafet donte rafet na ndax ci cooti lañu xëy ndax cooti lañu xëy gopp yi bopp yi ak machine yi ak machine yi ak fas yi ak fas yi ba cóoti jeex tàkk ba cóoti jeex tàkk moo ne mënoon nañu ndey mënoon nañu ni liñ ñu wooye woon liñ ñu wooye woon tool bi jeex na tool bi jeex na waaye dañoo laxasaayuwaat waaye dañoo laxasaayuwaat takkaat ndigg yi takkaat ndigg yi jub jub si mba jublu si mbadet si mbadet bi ñuy ñëw ci suba bi ñuy ñëw ci suba maag sëriñ Abdou mi maag sëriñ Abdou mii mu bàyyi móori mu bàyyi móori daf ni lii daf ni lii bu ñu yëgoon jëkkee ko de bu ñu yëgoon jëkkee nde lii nde lii yaakaaruma ne dina xaaj sax ne dina xaaj waaye bi ñu demee ba ci digg ba ci man ko sëñ bi naka mu mun ma sama xel dal na Pastef rek am solo dañoo ñëwee yéene akuk dogu lépp lu waay dugg te dugge ca yéene akuk dogu yàlla jiitu ci sa kanam yombalal la mbir ma kon alhamdulilahi bi leen yàlla jiitoo ci seen yéene ba defal leen li nga xam ne moo doon seen bëgg-bëgg di seen yéene sëriñ bi nee na teg na ci bëtam de te biir na ko ni kilifaam ya dem. kilifaam ya dem. di ay maamam. di ay maamam. di ay baayam. di ay baayam. sosoon lii. sosoon lii. ak i magam. ak i nañ ci lii. bég nañ ci lii. yàlla bég bég na ci. yonent yàlla Muhammad bég na ci. yonent yàlla Muhammad bég na ci. jullit yëpp bég nañ ci. jullit ndax fekk sa mbok ndax fekk sa mbokk. sa kilifa. sa kilifa di di jullit ni yow. di jullit ni yow. la. woo nga wuy si ko. nga wuy si ko. lam la doon doyee. lam la doon nga seral ca xolam guy. nga seral ca xolam guy. ku ne xam na ni. ku ne xam na di nga ci am ngërëmul yàlla. di am ngërëmul yàlla. yàlla nañ ko ci yàlla jox. yàlla nañ ko te mu jig nu waaye moom itam. waaye moom yàlla nañ ko jig. yàlla ko jig mu jig nu. mu jig nu. ndax euh, ndax lii yàggul dara. ndax lii yàggul dara. bi muy wàcc fii mbooloo mi. bi muy wàcc mbooloo te yàlla indi lii tey yàlla indi lii donte ñëwul ci coobareem donte ñëwul ci coobareem ñëwul ci sunu coobare ñëwul ci sunu coobare waaye ñëw na ci dogalub yàlla ñëw na ci dogalub yàlla yàlla nag lu mu dogal yàlla nag lu bu neexee bu neexee rafetlu ko rafetlu ko bu tiisee bu tiisee rafetlu ko rafetlu ko nga dogalub yàlla ndax dogalub yàlla kenn du ko naqarlu kenn ko naqarlu ab julit ab julit day gëm dogalub yàlla day gëm dogalub yàlla te day wóolu yàlla te day yàlla yàlla dikke nii yàlla dikke nii ah, mu nangul ko ko mu nangul ko ko maa bayna xamdatu aynin wa intibaatiha yuxayirullaha min xaalin ilaa jaaxal diggante xef ak xippi. yàlla da ciy soppi mbir. yàlla da ciy soppi ba mu soppeeku. ba mu soppeeku loolee da yàggul woon. tey mu soppi ko nii. ni mu soppi ko yàlla mel noonu. jëfi yàlla ngoog kon alhamdulilah. alhamdulilah Baye Serigne nee na. Baye Serigne bi mi ngi leen di ñaanal. mi ngi leen di li muy ñaanal boppam. li muy ñaanal boppam te li muy ñaanal boppam kat. te li muy ñaanal boppam. mooy yiwu àdduna. ak mbaam àllaaxira. ak mbaam mbaam mba mbaamu àllaaxira. mba. mba mu àllaaxira. waaw kañ. te mooy jaamu yàlla gu wér. te mooy jaamu yàlla gu wér. gu set wicc. gu set wicc gu sell lool. gu sell lool fii ci àddina. fii nu am yërmande yàlla. yàlla. loolu dong la jaam soxla. loolu dong la jaam bi soxla. nee na mi ngi ñaan. nee na mi ngi ñaan. yàlla bu ñu dee yóbbuy bor. yàlla bu ñu bor. yàlla bu ñu dee yóbbu bàkkaar. ku fa des. ku la fa desal. bàkkaar mbaa bor. yàlla nañ ci yàlla musal. sëriñ bi dee ngi ñaan loolu. sëriñ mi ngi digal boppam. mi ngi leen di digal. nan fonk yàlla. gëm ko te wóolu ko ko di jëfandikooy ndigalam tey wattandikoy tereem sëriñ bi nee na na ñuy dimbalante na ñuy jàppalante lu ci waay rawe waay bu dee doole jàpp ci sa moroom bu dee alal jàppale ko ca bu dee xel mu rafet jàppale ko ca na ñuy dimbalante tey jéggalante tey yërëmante lii daal nee na bu nu ci saxee bis bu nu fekkee mag ña du nu rus te nag wax dëgg yàlla fekki mag ña ñàkk rus ndam la ci kilifa gu ne ak ñamu jiite ndax su boobaa kat kilifa gu ne ak ñamu jiite woon dañ leen di woo atte leen ndax kenn ku nekk sàmm nga ci ñi nga yilif te sàmm bu ne bu jofal jotee bu jofal jotee dees na ko laaj li mu doon sàmm kon na bàyyi sëriñ bi nuy nu ngi lay gërëm sa càmmeef gii alhamdulilaay kal na koy yàlla la dolli rafetal bu ëllëgee buñ la booleeg nun di la atte ci sunuy jëf yàlla na nga siggi te la lay tax nga siggi mooy lii nga nuy digal yàlla nañ am xol buñ ko toppee te rafetal ko te sellal ko lii daal ci kàddu yu gàtt sëriñ baa ngi nu ko yónnee nan fonk sunu borom nan ko nangoo jaamu tey sellal jaamu yi bu nu defee lii daanu raw tey daanu raw ëllëg asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jàng ayatul kursi. jàng ayatul kursi yu. jàng fàllaxi ak naasi. jàng fàllaxi jàng naasi. mujj salaatu ala nabi. mujj salaatu ala nabi. yàlla mi mën a sàmm. yàlla mi mën a sàmm. yal na nu boole sàmm. yal na nu yàlla boole sàmm. yàlla mi mën a suturaale. yàlla mi mën a suturaal. yal na nu boole suturaal. yal na nu boole suturaal nu. yàlla mi mën a xéewalub jaam. yàlla mi mën a xéewal ab jaam. ba pare euh, euh, def ci xolam du bew. ba pare def ci ab xolam du bew. yal nañ ko yàlla defal. yal nañ ko yàlla defal amiin. kon ñu jàng ñaan gi. nan jàng ñaan gi. auzu bi kalimaatillaahi taammaati min sharri maa xalaqa اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا bismillahi irahmani irahim illaahu laa ilaha illaa huwa al qayyuum laa taaxuzuhu sinatun walaa nawmun lahu maa fi samaawaati wa maa fi l ardi man zaa lazii yashfau indahu illaa bi iznihi ya'lamu maa bayna aydiihim wa maa xalfahum wa laa yuhiituuna bi shay'in min ilmihi illaa bimaa shaa wa wasi'a kursiyyuhu samaawaati wal ardi wa laa yaduuduhu qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq qul a'uuzu bi rabbin naas malikin naas ilaahin naas min sharri l-waswaasil xannaas اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله قدره ومقداره العظيم joxal Ibrahima rajo bi. waaw sëñ Ibrahima. Baye Abdou mu ni ngeen may ko tuuti. xalifa bi nee ngeen may ko tuuti. nee ngeen may ko sëñ xalifa mii. yéen ay rëy le fanaanoo. ñu ngi lay jaajëfal Thiénaba Kajoor la jóge don dabu si liggéey bi bay doo agsi mu ni ngeen may ko mu nuyoo rek ak mbooloo mi ak njëggalam ak ngërëmam yàlla ko yàlla defal nun ñëpp noo ngi leen di ziyaara bu baax ñu ngi jël nuyoo boobu bu sell boobu bu tedd boobu bu màgg boobu noo ngi koy teg ci loxol kilifa gi sëriñ Abdourahim Seck xalif général bu Canaba noo ngi lay ziar bu baax yàlla na yàlla gën a guddal saw fan yàlla na yàlla dolli say wér yàlla na yàlla gën laa sàmmle li yonent bi doon wax ni jaalahu laahu miftaaxan lil xayri wa mixlaaxan li sarri yal na yàlla defal la ko am na jaam ñoo xam ne àgg nañ ci jubóog yàlla suñu borom taatam yërmande ci ñoom wépp yiw yàlla da leen koy ibbil ubal leen wépp ay yal na yàlla ibbil la yiw yëpp yal na yàlla ubal la ay yëpp ñoo ngi lay andil nuyoo Canaba Kajoor Serigne Talla Abdoul Aziz mu ngi lay nuyu bu baax Serigne Papa Seck Mourtada ak njaboot gi yëpp danoo xëy amoon i gan yu jóge woon boori Ngomeen ñu leen doon néggandiku ci sama añu kër ci laa añ naan lawal daa door a jóg kon li ma indi fii pas-pas la tabaarakallaahu waaye ci mbaaxu yàlla li nu ëmb ci sunu xol ci yiw ak bëgg a fekke ak bëgg a fekke tax na ñu fekke ci lii ñaan gu am solo sekk nu ngi lay ziyaara noo ngi ziyaara njaboot gépp liggéey bu rafet bi nga xam ni defe nañ ko yéene yal na yàlla fay leen ko maam Momar Talla góor gu mag daan na wax ni am na bàkkaar yoo xam ne julli du tax nu jéggal la ko sarxe du tax nu jéggal la ko loo mën a def ci lu baax du tax nu jéggal la ko waaye nee na liggéeyal nitu yàlla yaakaar naa ni mën na laa tax ñu jéggal la ko dem na Kajoor ci njàmbur dëkk bu ñuy wax Mbaafaar sëñ Daara Jóob mu xàddam bu mag la woon fa la dëkkoon maam góor gu mag ànd ak mbooloo mu bari di dugg si ci dëkk bi bi fekk benn waay yàlla fekk benn waay yàlla ci guy yi ci buntu ci mu def fa njaq lu sedd ku agsi mu tàng ndox jox la mu tàng ndox jox la ànd ak toroxlu yéem na góor gu mag yéem na góor gu mag bi mu ba nuyoo bi mu agsee nuyoo dañu waa ki ma romb ci buntu dëkk bi luy mbiram ñu ko kooku de waay ñu ne ko kooku de waay daa jote woon ak way juram daa jote woon ak way juram <clears throat> yàlla def bakkanu way juram bakkanu way juram des ci loxoom mu ne teg ba yàgg yàgg maam taale ni sigéet ne ah ay waay su ma ñaqaloon benn bëccëg rek yàlla jéggal ko bàkkaar ba wax nañ ne waajooja ñëw na ci tool góor gu mag am na ñu ni cóoti la la ñëw am na fi weer ci tool góor gu mag kon lëggéeyal nitu yàlla am na solo lool ñoo ngi leen di ziyaara benn xista laa koy tëje nitu yàlla bu baax ñu koy wax almaxruful karxiyu karxiyu wàlliyu la woon dafa am benn xale daa am benn xale chrétien la bi mu demee bay faatu bi mu demee bay faatu malaaka yërmande yi malaaka yërmande yi aksi bëgg koo yóbbu àjjana malaakay safaan yi aksi ñi dañ koy yóbbu sawara yàlla ilhaam xale bi ni ko loo bëgg mu ni ko delloo ma sama làmmiñ ma wax ak ñii yàlla delloo ko ruugi mu ni sigéet nag ni malaaka ajjana yi yéen a ma moom malaaka safara yi yéen dem leen ñibbi man taalibe maaruful karxi yu la ñu ne ko noo nekk taalibeem te doob julit mu ne ah yóbbu leen ma ca moom ñu yóbbu ko ca mm, moom te maaruful karxi yu mu ne ko yow noo nekk julit noo nekk nitu àjjana noo nekk sama taalibe te doo julit mu ne ko mos ngaa romb ay xale war aw fas yar ba wadd nga ne xale yi jox leen ma yar bi kala joxoon yar ba man mii a liggéeyal naa la kon liggéeyal naa la kon ñaqal nitu yàlla nekkul lu ndaw mën naa yéege nit ba faw mu teqale koog jafe-jafe ibbil ko bunti yërmande kon am nan yaakaar ci liggéey bii yàlla defal nañu ko loolu rek laa koy tëjee siyaare naa ñëpp jaajëfal naa ñëpp yàlla na yàlla guddal fan yi saafara jàngoor yi wàññi tiis yi jéggal nu bàkkaar yi suturaal nu nangulu li nuy jaamu bi xormat Seydina Muhammad maash ah jërëjëf eh, jërëjëf eh, équipe bu Thiénaba TV macha allah waaye amin ya rabbal alamin eh, ci ñaan gi nga xamee ni moom la xalif général bu Thiénaba Baye Serigne Abdourahim ñaan ñaanal ko mbokk yi nga xamee ni ñoo ñëwoon fii ci Mbadet ak Cooti waaye ñaanal ko mbokk jullit yi nga xamee ni tamit ñoo jàkkaarloo ak waa Thiénaba TV di seetaan Euh, kon mbokk yi lii la leen Thiénaba TV jëlale woon fii ci euh, ci ci ci Mbadet mooy wax ni cooti cooti la ñu xëyee waaye Mbadet la ñu wàccee euh, mu nekk lu am solo Aliou lañu la ñu la ñu taxawal Aliou defal ñu benn commentaire rek jàngatal ñu par rapport ak tey journée tey bi ci toolu Cheikhu Thiénaba yi naka nga ko gisee ak ci ñaan gi ca fin ba kàddu yeeg yooyu yëpp nga jàngatal ñu ko Aliou Ndoye waaw xanaa sant yàlla rek El Hadj Ndiame tey ñaan nag avant tout mooy sunu jumtuwaay bi Thiénaba TV euh, vraiment ñu ngi ñaan ci barke bis bi moom it yàlla nekk ak yokkam euh, ndax xam naa ni ay minutes yu néew rek waaw wala sax est-ce que rombul ña ca Amérique ak ña ca Italie ak ña ca France ak waaw ñoom ñëpp daana ko seetaan te loolu ak yombal la kon yaakaar naa su moyen gën a am barke gën a am ñaan gën a nangu yaakaar naa ne ñun ñëpp suñu xol dana gën a sedd mais suñu yaakaar dana gën a dolli ko alaaji Njaam mi mbir mi lu neex a commentaire la mooy euh, xam nga sos ak sof du benn sos dafa métti mais sof moom macha allah boo amee ku la gunge tuuti teg la loxo donc mën naa jéggi dayo te ku ne xam na ne Baye Cheikh fi jóge li mu desee desaloon ginnaaw mbay bokku ci bëggoon na bay njabootum bëgg la woon nañ ko mbay donc kon bu fi jógee euh, barki démb rek ñu ni diggante bu xat la ñu ni baab du mënoon naa wax ni xat na waaye mu ne déedéet àllarba bu moom ma ko taalibee ko moom te nit da nga koy jox la moom mu dimbali ñu def ko tey di première àllarba ñu ñëw tool ba taxoon ñuy woote mooy cóoti li ci gën a yéeme mooy loolu alaaj njàmbi cóoti la taxoon bàyyi abdu woote mais avant onze heures ci njàmbaaru taalibe bi ak seen pas-pas donc cóoti àgg bañ dëgmal mbalit kon loolu mooy li fi ne mooy taalib canaba canaba la bëgg Aliou ndoguma la waaye pour firndeel ni euh, sof moo fi nekk waaye sos nekku fi tool bi ñu taxaw muy mbodet Baye Cheikh Ahmed Tidiane moo ko ruuj mm-hmm. waaw moom moo ko ruuj kon euh, ba jënd jiw woon ba jëndoon jiw ba pare waaw wutaloon ko jiw ba pare jiw woowu nga kéemtaan suñu borom wax nañu ba ba ko njabootam di lay mm-hmm. Baye Abdou mi lay na ca ñëw na ca liggéey booba lay ca waaw ba soxnaam songu nee na songu gerte gi nee na bëgg koo bëgg a tib mën ko xam naa la ku san seek doon ko barkeeloo jot a jeex maanaam yàlla ñëw kii waaw waaw asaar da amul daal ni ngeen koy waxee. <laughs> waaw mu nekk lu am solo <laughs> xam naa ni euh, ñu ngi waaj a yëkkati jataay bi. <laughs> Euh, dinañ ko commentaire ci yeneen i jataay. waaye lu am solo. Mm-hmm. Euh, moom nga wax sàng mm-hmm. muy sos amul mais sof moo am. sof bi nag moo commencé. Mm-hmm. ca 1882 bi maam sosee dëkk bi. ginnaaw bi mu jógee bi mu demee fekk maam Cheikh Amadou. ànd ak moom liggéey la mu liggéey. bi mu fi jógee tamit maam Mor Talla di waajuru Baye Serigne Abdourahim jël. Euh, taxaw relève bi euh, taxawu ko ba euh, atam jot mu dem nga topp ko noonu ba ci Baye Cheikh Ahmed Tidiane barki démb tey nag yëf yi mu ngi ci loxo Baye Abdourahim ñu am yaakaar loolu nag ci moom ci kaw rassembleur la mooy baatu rassembleur laay laay utiliser mooy bëgg naa dajale njaboot gi waaye bëgg na njaboot gi yëpp xam naa sax waaye mu ngi bëgg nangu élève bi te élève bi élève bi moom laa bëgg woon gars yi ni leen dama doon béy waaw waaw ah waaw na waaj dama bàyyi élève bi tuuti dama bàyyi élève bi waaw nga dëgg rassembleur parce que message bi mu a a joxe. dafay message bu bu laaj jàngat. Mhm. mooy na ma ñëpp dagal mbootu. Euh, yemu ca mu ni koo xam ne attanoo àll bu fekkee attanoo njàmme mhm. bàyyil man ma dem ma dem wax ma njàmme fu mu ne mhm. man ma ñëw boot andi parce bëgg moom mbootu ma amari ndaag mi nee na di ko génn donc message la boo xam ne nun taali bi war nañ ci xam ne kon baab li mu wax mooy lu soree lu mu doon bëgg na mu jegee bi ci des mooy mu wax message bu bu message boobu nag bokk na ci li ko dëggal Aliou Ndiame mooy tool yi tey wax na ñaari yoon mu ni bëgguma samay wax bari ndax li may xaar daa bari loolu nag xam naa yéen yéen yéen borom bopp yi yéen koy gën a mën a décortiquer waaw mu ni bëgguma samay wax bari ndax li may xaar dafa bari. Ah, kon dafa mel ni euh, li tubaab naan pragmatisme. waaw pragmatisme xam naa dina jafe pour nga wax ko waaye lewal naa ko ba beneen yoon euh, pragmatisme mooy euh, jëf ju ëpp ay wax. xam nga boo déggee boo déggee li utale anglais ak français loolu la anglais dafa mën a jëf français dafa bari wax. Mm-hmm. lool lool lool waaw kon wax bi loolay teg maanaam daal jëf ju bari. moo koy xaar. kon léegi ñun ñëpp suñuy wax. au lieu que baab rek kon dafa mel ni ñun ñëpp dugal ñu ci biir ndax. xaw ma ñanaaw ak dungu am na nu ko gars yi lébe kon bu baax ne saay wax bëgg mu bari kon ñun taalib yëpp njàmbi li may gis mooy ku ci ne am nga aw sas amoon nga aw sas mais sas sas woowu yëgal ni Baye Abdou jël na yeneen dooñ def ca ndax toolub kilifa mooy toolu toolub taalibe kon bu nee bëggum samay wax bari ndax li may xaar daa bari ci yow ni nga ko tekkee ma déggewaat ci ak geneen jéggin mm-hmm. mooy kon ñun taalibe konoon ku doon daw benn war nga pare pour dawar fukk. te bàyyi wax ji te bàyyi wàññi wax ji. duñ ko bàyyi mais ñu wàññi ko. waaw te jëf <laughs> te it. maam Seere Fall daana wax ni. maa ngi bàyyi ba ëllëg. yàlla fay jëf yàlla fay wax. bàyyi jëf ma xam ne ñi doon jëf perte nañ. kon jëfi tey jii. ala njam yàlla ko yàlla denc foo xam ni du yàq bu mukk amin amin alaaji waaw waaw amin yaa rabbi waaw amin <laughs> alaaji Aliou Ndoye macha allah mu nekk lu am solo kon euh, ñun waxkat yi nag moom xaw ma nu ñuy def waaye xanaa peut-être wax rek pour dimbali gars yi euh, pour yokk jëf yi Euh, Talla Sarr la ñu àndaloon ak euh, Modou faal macha ci euh, ndimbal li ak bébé caméraman macha allah ak Talla Niass Diop ci équipe bu Thiénaba TV Moussa Ndiame Gueye moo nekkoon ak yéen ci waxukaay gi macha di joxante rek dig daje Baye Cheikh Ahmed Tidiane yàlla yàlla oyofal suuf ci kawam ci barke Seydina Mohamed salaahu alayhi wa salaam Baye Abdourahim Seck yàlla na yàlla yàggal ko fi te wéral ko ci barke Seydina Mohamed salaahu alayhi wa salaam jàmm xéwal ak sutura yàlla ko yàlla def mu